voudrais pas qu'on nous fasse faire du Wade sans Wade. La concentration des pouvoirs entre les mains du président de la République, Si on maintient un régime comme celui-là, tel qu'il est, mais tout le reste en découle, le président de la République sera l'alpha et l'oméga du système politique que nous allons mettre en place. À partir de ce moment-là, même si Wade n'est pas là, on fait du Wade sans Wade. La nouvelle constitution, le nouveau régime

edition of Gambian Showbiz ah, tey nag ñu lool di leen wax yéen yëpp ah, happy new year. I wish you a merry Christmas and a happy new year. waaye ñoom bar soo ko toggee danaan wesal mer gu bari ñàkk la ko mer kalaameel yàlla diine yaa nga saalum saalum ñetti la ba ko ba di waañ wa waañ wa messieurs bonjour bienvenue à votre émission samedi mag comme ni ñu koy waxee chaque samedi ñu proposer leen benn deux heures de direct avec euh, nos invités et pour euh, la première partie de cette émission euh, notre invité aujourd'hui est Mohamed Mbodj pourquoi Mohamed Mbodj parce que tout simplement nous avons constaté que pratiquement on est à la fin des congrès c'est plus possible de faire des congrès d'investiture de tous les candidats. Et aussi, euh, ce très important qu'on analyse l'ensemble des candidatures qui ont été déposées et puis qu'on essaie aussi euh, de voir concrètement qu'est-ce que le peuple sénégalais attend de ces candidats. Et pour parler de ça, nous avons choisi euh, Mohamed Mbodj, qui est le coordinateur du Forum civil et qui, en je crois très bien, avec la société civile, avait initié une sorte d'audition de tous les candidats. Et dès à présent, peut-être que nous allons entrer dans le vif du sujet avec lui. Pourquoi Parce que Mohamed Mbouch, euh, c'est quelqu'un qui s'y connaît un peu, parce qu'il a eu à être avec les candidats, à discuter un peu avec eux, à être aussi au niveau des assises, parce que bon nombre de candidats euh, ont participé aux assises nationales. Mohamed Mbouch, tout d'abord, euh, je vous remercie, parce que hier au samedi, c'est pas évident. pour la cause pour la cause du pays. Ouais. Voilà. Alors, première réaction. Alors, nous allons regarder un peu la une des journaux, parce que quand on regarde, euh, suite à l'attaque mortelle de la mairie de Sicap Mermoz, Bro, Bro, je rappelle que c'est le garde-corps du président de la République qui a été cité dans cette affaire d'agression. Euh, démb gars yi jàpp nañ ko mais affaire bi dafa doy parce que après finalement Euh, dañ ko libéré donc euh, forum civil génne woon na benn déclaration déclaration pour parler un peu de l'impunité mhm. au Sénégal donc ci loolu ban réaction ngay am d'abord ci lii bon scandalisé comme tous les Sénégalais parce que le vivre ensemble dans une communauté uh mhm. -huh. n'est garanti qu'autour de deux principes c'est les valeurs et des règles si vous prenez un groupe de huit personnes ce qui le fait fonctionner, ce qui lui assure sa cohésion, c'est les valeurs et des règles qui sont communes. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de les produire. Absolument. Il faut que chacun l'observe, les observe, respecte ses règles et ses valeurs. À l'échelle d'une république, c'est le même principe. Uh -huh. C'est un grand groupe diversifié dans ses croyances, dans ses démarches, dans ses attentes, ce qui fonde ce vivre ensemble à cette échelle, c'est les règles de droit c'est la loi et le respect de la loi par tous donc à chaque fois qu'on est dans une expérimentation de cet ordre que nous avons connue pendant ces cinquante ans et plus particulièrement ces douze dernières années le sentiment c'est qu'on est en crise si il y a des citoyens qui sont au-dessus de la loi la première question qu'on peut se poser c'est l'utilité de la loi Parce que ceux à qui on va appliquer cette loi vont se rebiffer. Et c'est le début de la crise. Mmh. Donc nous l'avons vécu de diverses manières. Et ce qui engendre l'impunité en général. On l'a dit dans notre analyse, c'est la nature de l'État. Ce n'est pas des manipulations d'un homme. On est dans un État privatisé, néopatrimonial. Le processus, on l'a expliqué plusieurs fois dans nos mhm. sorties. quand un État qui est censé représenter l'intérêt général, l'intérêt collectif, est au service et en capture les, les, les, les certains universels latino-américains parlent de ce concept de capture de l'État par des intérêts particuliers. Uh mm-hmm. -huh. Donc, quand l'État fonctionne comme ça, il n'est plus au service d'une nation, il est au service de groupes privés. Son autorité est remise en cause. c'est un groupement, ça devient... Et dans ce cadre-là, parler de la justice est un leurre. Parce que dans un système comme ça, on extrait les fautifs qui sont dans ce groupe privé qui contrôle l'État pour ne pas leur appliquer les rigueurs de la loi. Uh -huh. Ils sont dans un régime de privilèges par rapport aux droits communs auxquels on soumet l'essentiel des, des citoyens. Donc de ce point de vue-là, quand on regarde Bro quand l'histoire de Talla Sylla l'histoire de Alioune même récemment les menaces qu'il qu'on fait peser sur lui uh -huh. quest qui peuvent orienter les groupes paramilitaires euh, le fait qu'on ait pris les calots bleus qu'on les ait intégrés dans le dispositif de sécurité du pays dans le cadre d'un État privatisé ce qu'un policier normal pourrait ne pas accepter ou résister de faire un calot bleu pourrait le faire à partir de ce moment, il y a une confusion entre mmh. la mhm. sphère publique qui devrait nous représenter tous et les intérêts d'un groupe privé qui contrôle le pouvoir. L'État est en otage entre les mains de services privés. Si on, on, enlève cet élément, on peut, ne on peut pas comprendre ce qui se passe. Donc, maintenant, donc maintenant, votre sentiment, pour... vous, c'est que l'État est aujourd'hui pris en otage par un clan. Mais depuis très longtemps. C'est depuis même l'indépendance. Mais l'intensité a changé depuis 12 ans. On est allé jusqu'où Il y avait un voilage. Mm -hmm. C'est pourquoi quand vous entendez qu'un homme comme Ousmane qui mm. connaît l'État, qui été au cœur de l'État, quand il parle de l'État, vous voyez qu'il est presque habité par une passion. Il voit ce qui n'a pas fonctionné, même de son temps, mm-hmm. et ce qui n'a pas fonctionné non plus aujourd'hui. Prenons juste un exemple. Cet État-là, pour accroître sa mainmise sur le pays, les institutions, mm-hmm. il a deux modes opératoires la corruption systématique, structurelle. On achète, il peut même prendre des, des, des, des comment on dit, une, une, apparence légale. On peut dire on augmente des salaires auxquels les gens n'ont pas droit. On, on, peut donner des, on peut redistribuer des revenus à l'échelle de tout ce qui permet la reproduction du système mhm. et son fonctionnement en l'appelant officiellement une augmentation de salaire. Mais est le cas des... tout, ça, tout ne débouche pas sur un chaos Mais c'est le, c'est la contrepartie. C'est-à-dire que plus un État s'enfonce dans cette logique d'hyper-personnalisation du pouvoir, de privatisation du pouvoir, les citoyens s'en détachent mmh. et refusent de se soumettre à l'autorité d'un tel État. Et c'est premier, la première réaction, le premier niveau de réaction. Mmh. Si l'injustice touche le grand nombre, les gens se donnent les moyens de produire une justice privée, c'est-à-dire de régler eux-mêmes leur propre compte. Ce que Barthélemy a fait en utilisant des armes pour se défendre mhm. procède de cette logique-là. Donc, quand on dit, l'utilisation des moyens de l'État pendant la campagne électorale, mais comment voulez-vous qu'un État qui est en capture, qui a pris en otage, qui sert des intérêts privés, de façon subite et magique, uh mhm. -huh. pendant le processus électoral, uh mhm. -huh. se remette dans une forme de normalité légale. C'est un rêve, hein? c est, c Oui, c'est un rêve ça se, ça se repère dans la distribution du service public. Ça se repère, cette forme de privatisation de l'État se repère quand on le regarde. Cela reflète dans la distribution du service public, de l'eau. Là où on met les forages, c'est là où on a des militants. Là on met des écoles, des lycées, c'est là où on a des militants. Uh mhm. -huh. Là où on met l'électricité. Vous voyez des villages qui reçoivent une centrale avec tous ses inconvénients, uh qu'on oublie, à qui on oublie de servir, non l'électricité. On va le mettre dans une confrérie, dans une zone confrérique pour servir des intérêts privés de ce point de vue-là. Uh-huh. Et la refondation de l'État, son fondement, c'est ça. Ce n'est pas des choix électoraux. C'est-à-dire que cet État-là ne peut plus guider l'avenir du Sénégal. Autrement dit, le Sénégal ne peut pas faire l'économie quelque part d'une refondation. Il faut casser cet État. Il a fini son parcours historique. Un État, sa mission première, c'est de conduire la gouvernance pour le développement du pays. C'est de satisfaire les besoins des populations. Un État qui sert des intérêts autres que l'intérêt général, uh-huh. mais il a perdu le sens même de sa mission. Il ne doit plus être. Et c'est ça, on est en fin de parcours sur ce cycle. Si les Sénégalais l'ont toléré, il y a plusieurs facteurs. La citoyenneté n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. La majorité des Sénégalais sont conscients de leurs droits, et sont debout autour de certaines exigences pour que l'État puisse satisfaire ces exigences. Chaque jour, vous ouvrez la presse, vous voyez des marches ici, des réclamations. C'est des questions sur Comment mm la, la, la, les services qu'on leur doit sont distribués équitablement, de manière transparente Est-ce que c'est dans une meilleure efficience dans l'utilisation des ressources nationales C'est autant de questions qui fait que ce que vous semblez percevoir comme le chaos, Je crois qu'on en est dans, dans l'entame. L'entame, ce pas seulement les combats de rue, mm-hmm. c'est la perte d'autorité de l'État. On le repère dans toutes Tout se négocie au niveau de l'État. Tout Parce que les populations ne le font plus confiance. Et ça, vous avez vu que des juges honnêtes ont dû réagir par une colère dans ce qui s'est passé sur l'histoire de Bro. Mm-hmm. Et c'est un désastre que les expériences de violence connues dans le pays, ont toujours eu un lien avec l'entourage du président de la République. Que ce soit le cas de Talasila. Talasila, on a cité les gardes-corps du président de la République. Voilà. Et euh, quand on en parlait, on également sur l'histoire de Barthélemy, le garde-corps du président de la République. C'est-à-dire cette forme de déliquescence de l'État est arrivée à un point tel qu'aujourd'hui, ça suscite de nouveaux, nouvelles attitudes au niveau de certains corps de l'État pour plus de réserve dans ce qu'il faisait. Mm -hmm. Je prends le corps des, des, des magistrats. magistrats Aujourd'hui, l'UMS communique énormément sur ces questions. Et, et presque c'est tous les jours, parce que les dénis de justice sont là, tous les jours, sur des cas précis où eux-mêmes, les juges, se prononcent. Euh, et ce que les assises ont fait comme plateforme pour repenser le modèle de gouvernance qu'il faut mettre en place, qui serait plus en adéquation avec les mutations sociales et politiques que connaissent et notre pays et notre continent. Mmh. Alors, euh, donc, est-ce qu'on peut dire, Mohamed, quand on regarde très bien euh, dans cette affaire, que ce dossier-là de Barthélémy Diaz risque d'être classé sans suite, comme bon nombre d'autres dossiers d'ailleurs Bon, si, si, si et quelle est la responsabilité aussi du chef de l'État Le contexte actuel uh mmh. -huh. ne se prête pas à une sorte de banalisation de ce qui s'est passé. Parce qu'on est à la veille d'une ouverture, d'une possibilité de changement dans le pays, politiquement. Et si l'État, le chef de l'État, dans un sursaut d'intelligence, ne fait pas, ne laisse pas fonctionner les règles de droit et les institutions dans leurs prérogatives et leur autonomie, je crois qu'il risque d'en faire les frais. C'est une période de grande visibilité sur le pays. Quelqu'un parlait de grande surveillance du Sénégal actuellement. Uh -huh. L'œil du monde est rivé sur notre pays. Les croyances des populations vis-à-vis de l'État, c'est les méfiances des populations, sont presque cristallisées. Uh -huh. Un élément comme ça pourrait être perçu comme un pied de nez à l'intelligence des Sénégalais et à le respect par le chef de l'État lui-même. Je crois qu'ils sont tenus et condamnés à aller jusqu'au bout. S'il y a des poches qui hésitent, ce qui peut le justifier, ce pas un manque de volonté. Mais dans les que des gens, comme Bro, par exemple, des gens arrêtés et libérés très des, rapidement. Des c'est une situation, de clanique de gestion du pouvoir fait que les gens qui sont de l'autre côté se tiennent par la barbichette. Chacun a une histoire à raconter sur l'autre. Chaque fois qu'on sort quelqu'un du système, il sort, il menace de déballer. Donc c'est une sorte d'omerta qui structure ce pouvoir. Ceux qui y sont le savent, savent les histoires. Mm Ils acceptent volontairement de partager la table avec ces histoires de violence, de complot, de détournement. Mm -hmm. Mais dès qu'on les met loin de la table, ces gens sont prêts à dire des choses. donc, c'est souvent les hésitations pour instrumentaliser les institutions de l'État, les procédures, mmh. tiennent de cette logique où chacun se tient la barbiche. Comme alors, dans les sociétés secrètes. Mais que faire Mû par mais des intérêts faire, singuliers. Est-ce qu'aujourd'hui le Sénégal peut se payer le luxe de vivre comme ça dans l'impunité totale Mais je crois que s'il y a des doutes sur la question, ça va relancer la mobilisation politique. Parce que le Parti socialiste n'acceptera pas qu'on sacrifie un de pour des vétis. S'il y a, il y deux choses en matière d'équité. Bon, l'idéal serait qu'elle soit dans le sens de la justice, d'un traitement équitable de tous les citoyens par le service public de la justice. Si ce pas le cas, mais il y a l'autre versant qui est très négatif, historiquement parlant, mhm. et qui peut générer les dérives les, plus graves pour les plus faibles. l'équité dans l'injustice. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de justice plié, un... pour personne. À partir de ce moment, mm -hmm. la conséquence politique, c'est la fin de l'État. C'est la fin de l'État et c'est le modèle somalien. Même si on n'en arrive pas par les armes, il n'y a plus de règles, personne n'est tenu par ces règles et les institutions sont vidées de leur sens et de leur contenu. Mais quelle est la responsabilité de la justice dans cette affaire C'est un des piliers essentiels. Disons des comme, juges. Des juges. Parce que décrit comme sous ces vocables génériques, c'est une moi, abstraction. Oui, oui, mais quand même, par les, exemple, la justice juges, est la animée par des hommes. Oui. Mais quelle est, quelles sont les valeurs portées ces, par ces hommes aujourd'hui Ils ont une responsabilité historique quand même. On ne peut pas dire que le monde entier soit scandalisé par des choses que des autorités étrangères même s'immiscent dans le jeu politique national, que ce que je déplore personnellement. Mm. Je ne suis pas pour je suis pour la souveraineté de notre pays. Mmh. Qu'on monte notre capacité à prendre en charge nos propres problèmes. Qu'on n'active pas des réseaux internationaux pour remettre en cause. C'est pas contre Ablaïwad, c'est contre la souveraineté du Sénégal. Mais, mais je dis, mais je quand on regarde, par exemple un pays comme la France, mhm. quand la France se prononce sur euh, euh, l'affaire Barthélémy Diaz par mhm. exemple, en disant que ne faut pas que ce dossier soit classé sans suite il faut tirer cette affaire au clair non à la violence je pense que si l'État prenait ses responsabilités dès l'instant que Barthélemy a été arrêté arrêté aussi les 27 nervis et puis le commanditaire parce qu'on sait que ces nervis sont venus du PD du Parti démocratique sénégalais pour attaquer Barthélemy sont retournés là-bas on sait les personnes qui ont invité ces nervis à commettre euh, ces actes donc quelque part c'est à l'État de prendre ses responsabilités avant d'être interpellé sur le plan international mais c'est justement ce vous, vous avez vu toute la résistance contre les procédures lancées par la Cour pénale internationale en disant qu'elle ne traite que des chefs d'État africains, il y a des situations de justice. La justice internationale trouve sa légitimité dans la crise de, des de gouvernance interne des uh mhm. -huh. systèmes judiciaires. C'est parce que nos systèmes judiciaires refusent de délivrer un service public, la justice, équitable, juste mhm. et, et, et, et fondé sur le droit, que d'autres espaces ont été créés pour traiter de ces questions. Mmh. Donc on, est, on est scandalisé quand on dit il faut qu'on extrade Habré. Il y a d'énormes opinions qui qui semblent être à cela. Hmm. Mais si dans nos propres systèmes de nous, nous ces systèmes sont battus sur le refus de la justice. À l'affaire du sur des dénis systématiques de justice. Mmh. À partir de ce moment, cette revendication des du syndicat des chefs d'État Donc que les juges que les politiques qui savent qu'on est à et quelques jours d'une possibilité de transformation pèsent leurs responsabilités ceux qui prendront une responsabilité quelconque dans cette affaire pourront demain être poursuivis uh -huh. Alors, et deux ça peut être le déclencheur parce que les socialistes n'accepteront pas que les leurs croupissent en prison pour des accusations infondées, fantaisistes et erronées. Et ça légitimerait l'usage même de la violence de ce point Donc ceux qui sont en mesure de prendre des, des, des, des décisions à ce niveau-là doivent peser leur responsabilité devant l'histoire. <laughs> Devant l'histoire. Alors, euh, nous allons aborder un autre point, la présidentielle de 2012. Y a-t-il mmh. un trop plein de candidats, à votre avis Bon, euh, je ne peux pas juger, parce que si vous voulez... Parce que jamais peut-être dans l'histoire politique du Sénégal, on oui. a vu autant de candidats pour une élection présidentielle. il y a il y a peut-être trois entrées sur cette question. Mm -hmm. C'est que c'est un exercice de liberté individuelle mm -hmm. que leur procure l'ordonnancement juridique euh, du au Séné, du Sénégal. Ils ont le droit face à des élections s'ils remplissent les conditions de pouvoir se présenter. Donc c'est l'exercice d'une liberté pour laquelle nous nous sommes battus tous Absolument. Ah, pour que ça puisse exister. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas le remettre en cause. Euh, et deuxième élément si on entre du côté des motivations, quand on observe euh, ce foisonnement, euh, à bien, bien, bien l'observer, on se rend compte qu'il y a trois groupes mmh. de candidats qui peut-être partagent les mêmes logiques dans ces différents groupes. Il y a un premier groupe d'opposition constante, systématique, et historique, qui a refusé tout lien avec le pouvoir actuel. Ce groupe est symbolisé par le Parti socialiste, le RTS. Mmh. Même mmh. si dans la distribution des candidats, ce n'est pas la, les mêmes mmh. positionnements aujourd'hui. Talasila. Hum? Mmh? Voilà ce que j'ai connu. Peut-être d'autres partis plus petits que j'ai oubliés, mais voilà ce qu'on a vu sur le terrain. depuis prendre 2000. des initiatives depuis 2000. Ils sont constants. Ils gardent une constance sur leur position historique et sur leur distance par rapport à la manière dont la gouvernance publique est délivrée depuis 12 ans. Uh-huh. Il y a un deuxième groupe de candidats qui était au cœur de l'alternance et que l'alternance a mis hors de ce système de gouvernance, qu'ils n'ont plus partagé. Dans des séquences de temps et de motivation qui sont un peu différents. Dans ce groupe, on a deux sous-groupes. On a ce qui était là en 2000, CA 2000 avec Wan, c'est Nias avec son groupe, les Dansoho, les Bachili. Ils hmm? veulent prendre leur revanche. Il y a, il qui est candidat aussi, qui est dans ce groupe. on, peut en citer d'autres, mais souvent, il y a une masse critique qui s'est agglutinée autour de la candidature de Il y a un deuxième sous-groupe dans ce groupe, deuxième groupe. Uh C'est la famille libérale, tout ceux qui se sont désagrégés ou sont partis uh -huh. du noyau, qui étaient, faisaient partie du noyau historique avec Wad ou qui a participé activement à l'alternance. C'est Idrissa Seck. Macky Sall. C'est Macky C'est Aminata Tal. C'est Cheikh Tidiane les deux groupes n'ont pas les mêmes logiques les deux sous-groupes le sous-groupe de Niass le sous-groupe des anciens libéraux autour de Wade uh mhm. -huh. ou les enfants putatifs de Wade avec uh mhm. -huh. qui ici n'ont pas les mêmes logiques et ne cherchent pas la même chose je dis là-dessus il un troisième groupe c'est les indépendants qui sont venus récemment mhm. qui n'ont pas d'homogénéité dans ce groupe sur leur projet mais fonctionnellement on peut les identifier comme ça. ça la de groupe dernier groupe probablement c'est une crise de confiance sur la classe politique traditionnelle. Uh Ils ont des parcours professionnels qu'ils mettent en avant, la plupart du temps, uh ou un parcours politique, le dernier qui s'est retiré, c'était mon ami Latif Koulibaly. Ce dernier groupe, Youssou uh-huh. en fait partie. Ce groupe-là, sa justification, probablement, c'est la crise de l'élite politique et intellectuelle. C'est-à-dire que les trois autres groupes font partie de l'élite politique et intellectuelle traditionnelle. Leur âge importe peu. C'est leur culture politique, bâtie sur un système messianique, le sauveur qui vient, qui donne des bonbons, qui décline. Quand vous regardez le discours des candidats, les, pré -discours, les discours des pré sauf, je ne veux pas stigmatiser ni en valoriser quelques-uns. Uh -huh. Mais il y a une tendance globale, malgré qu'on condamne le mécanisme, mais toute la démarche est mécanique. Chacun en tant que sauveur. Pour régler les problèmes, pour, sauver le Sénégal, Sénégal, pour. En un appel de responsabilité. <laughs> On a. La plateforme de Benno est distribuée dans ces trois groupes. Ce qui pose la question de la cohérence, sur la capacité. Il y a deux choses qu'il faut analyser aujourd'hui. Uh-huh. c'est les conditions de la transformation. C'est les Sénégalais ne veulent la transformation depuis 88. 88, il y a eu un mouvement populaire autour de la candidature de mhm. le Parti socialiste avait commencé à perdre les le bastion historique du PS les zones rurales. Mm -hmm. À partir de 88, Abdou c'est en termes de sharing power, comme disait Wade à l'époque, de partage, du, du, pouvoir. pouvoir. Abdou Diouf parlait de majorité élargie, majorité mm-hmm. présidentielle élargie. C'est le regroupement de tout le monde. Mmh. Et cette période coïncide avec le discours de la boule mmh. et le début de la chute du mur de Berlin, si vous vous rappelez. il y a eu une sauce à la sénégalaise pour prolonger l'État contesté violemment par les émeutes de 88 mmh. et pour lui donner un second souffle. Ça va fonctionner jusqu'en En 2000, autour du slogan SOPI, l'élément nouveau, c'est-à-dire il un groupe social mmh. qui émerge dans l'espace public, c'est une classe moyenne assez forte, diversifiée, qui est le produit d'un effort considérable sur l'éducation pendant 30 ans, d'un processus d'urbanisation important au Sénégal, 40%, et l'espace créé par les nouveaux médias privés dans les années 90. Ah. Ce groupe, la classe moyenne, va le SOPI, qui la transformation, ah. dans le a porté l'alternance. Donc, ce qu'on attendait de WAD, ce une transformation de la société. 12 après, c'est un approfondissement des ah. de la crise pré-alternance. Alors, pour revenir... Avec plus de corruption, mmh. euh, une gouvernance euh, calamiteuse mhm. du point de vue public. Même s'il y a des avancées qui ont été posées dans certains secteurs, c'est en dessous des attentes des populations. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc les Sénégalais sont restés sur leur faim jusqu'à Et donc, il y a un transfert mhm. des attentes longtemps contenues pour une partie de cette classe moyenne qui avait SOPI est candidat. C'est les candidatures indépendantes qui revendiquent des parcours professionnels, qui parlent de sérieux, qui mm -hmm. parlent Les gens ont puisé dans leurs ressources pour refuser cela. Ça veut dire que le système est en crise depuis 88. Et depuis 88, tous les rendez-vous de l'histoire mm -hmm. pour transformer le système, nous mhm. la cupidité, et le manque d'éthique de la classe politique. Donc alors, il y a une classe politique les, traditionnelle les, en faillite. Alors, la faillite de cette classe politique peut-être explique mm -hmm. euh, certaines candidatures indépendantes, mais sur ça, est-ce que vous avez l'intime conviction qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas un appareil politique peut bouleverser les donnes L'appareil politique est relativement important aujourd'hui, mais pas comme il l'était avant. avant. Parce que je vous ai dit, l'élément nouveau, c'est cette classe moyenne et cette émergence citoyenne que les médias ont aidé à, faire exister. on peut Non, aujourd'hui, il y a une citoyenneté active, même en milieu rural. Et que l'achat des consciences, mhm. les manipulations, le niggle, le reste ne peuvent plus opérer dans les, dans les mêmes termes mm -hmm. que cela produisait de l'effet il y a quelques années. on est dans un champ d'incertitude par rapport aux vieilles pratiques politiques traditionnelles. Ce qui vous le montre, c'est qu'il n'y a pas deux forces. Il y a pas, la bipolarisation est cassée en même temps. Mm-hmm. Avant, il y avait WAD et le PS. Aujourd'hui, c'est 4-5 pôles de regroupement de la citoyenneté. Mm C'est le Parti socialiste qui a gardé quand même son appareil, qui peut servir dans les zones rurales, dans certaines zones rurales. Mm -hmm. Il y a, et ce qui s'est agrégé autour de lui, il y a Macky y a Moustapha Niass le parti démocratique sénégalais. Uh-huh. y a Idrissa Seck sur les cinq grands pôles. maintenant jusqu'ici ce qu'on a vu dans ces coalitions c'est une forme d'agrégation d'appareils politiques ou dit du mouvement de mouvement citoyen mais quel est l'ancrage social de ces souteneurs quel est leur poids politique et social dans le pays parce que en mathématiques c'est pas en agrégeant des appareils qu'on a des forces, que ça se traduit en force dynamique ah, sociale. Donc, la somme des sommes nulles restera toujours une Nul. somme nulle. <laughs> ça veut dire Parce qu'en qu face, il y a des citoyens, une citoyenneté méfiante. On, on, entend toujours. Qui on ne sait même candidats. pas où voter. Oui. Qui hésite mm -hmm. à prendre position. C'est pourquoi on entend toujours des candidats dire Je suis soutenu par 33 mouvements. Alors Mais sur quelle base ils sont soutenus Quelle est leur plateforme pour l'abonnement Je vous donne quelques éléments d'incohérence. Qu vous avez entendu le discours de ces candidats. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a quelqu'un qui a sorti quand même un discours très responsable face à la situation La plupart du temps, Wad dit qu'il continue ce qu'il a commencé à faire. Mhm. On peut le comprendre différemment. Il dit les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc c'est les infrastructures. Quand on regarde la politique du gouvernement dans le, pro, le projet, de, le, le, programme de documents de, économique, économique, et social, uh -huh. bon, y a, même les bailleurs sont plus ou moins inquiétés par cette prégnance des, des, des, de, des infrastructures dans les, le programme de développement social dans les trois prochaines années. Parce que vous, vous, vous, vous comprenez très bien que c'est un secteur très corruptogène, Uh-huh. et qui a structuré beaucoup de scandales financiers ces douze dernières années les autres il y a un référentiel c'est plus des professions de foi que des programmes c'est des axes cinq axes trois axes et ça peut se comprendre parce que pour moi ça pourrait se comprendre si les candidats disent qu'aujourd'hui ils veulent construire et s'appuyer sur le modèle de gouvernance prôné par les assises qui est uh-huh. inclusif je peux pas tout seul élaborer un programme je vais le coproduire avec les acteurs concernés par secteur mmh. bon peut-être les sortir de cette difficulté mais personne ne le dit pour le moment mais on donne des axes c'est plus profession de foi qu'une démarche de d'élaboration et de présentation d'un programme mmh. Est-ce que vous espérez un tournant Je termine un dernier élément mhm. qui, remet en cause. Tout le monde parle, le reste parle des assises nationales. Mais c'est un référentiel parce que le contenu des assises n'a pas été diffusé. On vient de sortir, cette mhm. semaine même, le rapport général sur les assises. Mais quels seront les outils de diffusion rapide pour, qui permettent de mobiliser la conscience des gens et d'aider à la décision électorale des, des citoyens en, dans 50 jours Qui va le porter Quelle société civile qui a tendance à s'aligner politiquement aujourd'hui comment c'est extraordinaire a remarqué également sur ce plan, c'est que euh, il y a beaucoup de mouvements qui se réclament de la société civile qui ont choisi délibérément de soutenir un candidat. Est-ce que ça décrédibilise pas la société civile à ce niveau? Bon, participe d'une énorme pression, d'une énorme pression de dynamique politique et sociale aujourd'hui liée à la crise de la gouvernance et la crise uh mhm. -huh. des la gouvernance. La société civile, depuis pas seulement pour ces élections, a, depuis quelques années, perçu cet enjeu et souvent la réponse qu'elle a développée, on peut interroger sa pertinence. C'est de se proposer comme candidat, comme une sorte de supplique ou de suppléance uh ah. -huh. de la classe politique défaillante, de la classe politique traditionnelle défaillante. Uh ah. -huh. Donc, je pense que chacun appréciera. La, ça relève de souveraineté des organisations. Mais l'intérêt du maintien de la société civile réside dans le fait que dans un système, un modèle de gouvernance qui structure un vivre ensemble bâti sur la verticalité, uh -huh. il y a des difficultés pour avoir des matelas pour absorber les conflits. Uh -huh. Bon, il y a des difficultés. L'intérêt du Sénégal, la, force majeure du Sénégal, jusqu'ici, était bâti sur plusieurs éléments historiquement. Il y a des, des, des transversalités qui ont été des lieux d'incubation des valeurs nationales, uh-huh. du sentiment national, de brassage. avant l'école et l'armée, ça a été les confréries. Dans les confréries, le modèle sénégalais a pu permettre que des Diolas se rencontrent, des Srasonkhe, des, des Wolofs, des tout couleurs, comme Mourit ou Tidjane ou Khadr ou ailleurs. Uh -huh. Et les convivialités sociales, ethniques et culturelles ont été fortifiées dans ces processus. Donc les lieux d'expression de ces transferts, c'est ce niveau-là, c'est l'école, c'est d'autres éléments, les associations. Uh-huh. en Côte d'Ivoire, les, les, facteurs d'accélération euh, de la crise qui l'ont favorisé fortement, ça été le fait de l'alignement sur la verticalité. Il y a un courant politique au sommet, une mmh. presse alignée sur des bases ethniques et une Mais société civile mmh. alignée. Aujourd'hui, la société civile restait l'élément d'interposition. Je ne parle pas de neutralité, ce concept n'a aucun sens pour moi. Mmh. Je parle d'autonomie politique et, et, et des lieux préserver les lieux de, de cette transversalité. Ça ne vous enlève pas la responsabilité de prendre position sur les questions qui agitent le landerneau public, l'espace public. Mmh. Mais vous gardez votre autonomie vis-à-vis -vis de tous les acteurs, surtout l'indépendance vis-à-vis de l'État et l'autonomie politique vis-à-vis -vis des forces partisanes. Juste pour analyser aussi euh, la candidature de Youssou est-ce que vous pensez que ça peut faire des effets, avoir quand on regarde, il dit déjà qu'il va gagner dès le premier tour. Bon, les candidatures tardives, je vais les appeler comme ça, ont un problème. Si on examine leur cohérence dans leur évolution sur ces 12 dernières années, uh -huh. on a du mal à comprendre. Parce qu'à un moment, on a on n'était pas dans ce qui structurait les batailles politiques et sociales. Uh -huh. On a constaté une non-présence de certains de ces acteurs sur les assises, sur toutes les marches qui se sont passées dans le pays. Pour moi, aller à une candidature présidentielle est un processus qui atteint son point d'achèvement. Vous vous êtes impliqué, je prends l'exemple de Latif Koulibaly, en 2003, il commence à produire sa pensée sur la gouvernance publique. Mm-hmm. Il arrive en 2012, il dit je suis candidat. Certains le lui ont contesté. Moi, j'ai dit non, c'était légitime de ce point quelle est la légitimité de ces candidatures j'étais dans une institution professionnelle j'étais j'avais mon cabinet ou j'étais dans une institution internationale je regardais mon pays partir en lambeaux je n'ai rien dit jusqu'à la veille des élections je viens je structure il y a une sorte d'incongruité de ces candidatures que l'on peut constater absolument interroger sur leur cohérence par rapport aux luttes populaires ici dans le pays ils n'ont participé à aucun combat bien sûr bien sûr et sur quelle base candidat. ils veulent diriger le pays ils ne se sont pas investis ils n'ont pas investi pour cela uh -huh. on peut interroger cela mais en même temps la motivation peut être comprise de Youssou Ndour comme relevant d'une crise de la de l'élite politique traditionnelle qui uh -huh. est là uh-huh. depuis cinquante ans et qui ne s'est assujetti à aucun devoir de résultat pour satisfaire les besoins des Sénégalais qui n'en a pas Le Cap Vert nous devance sur beaucoup d'indicateurs, sur la gouvernance, sur l'économie. La Gambie, aujourd'hui. Et c'est la même élite qui est là, qui demande à revenir. Sur quelle base on va leur faire confiance Sur leur passé Sur les résultats, les performances de leur passé Sur quelle base on va le faire Si on veut être sérieux et rigoureux, nous devons leur poser cette question. Sur quelle base vous nous donnez des gages que vous ne ferez pas comme vous le caverne Le Cap-Vert qui nous rattrape même pas était indépendant on les a aidés avec le PAIGC. C'est un pays à revenu intermédiaire qui demande même son entrée à l'Union européenne. Il a un meilleur classement sur l'indice de perception de la corruption. Mm-hmm. Il a un meilleur classement sur l'indice sur la démocratie hier. Mm-hmm. Sur l'IDH, la Gambie, le Mali. Je sais pas, ça, ça c'est la responsabilité de la classe politique traditionnelle. Youssou Ndour peut pour pour pour comment dissiper les fonds publics, les ressources publiques et les placer acheter des appartements en France, aller me soigner en France. Youssou Ndour on n'a pas besoin d'un doctorat pour ça. Et c'est ça l'autre motivation. Donc, la faillite de l'élite politique est l'élément central de motivation de ce type de candidature. Uh-huh. Et la capacité à retourner sur leur, leur, message. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, il est avéré dans des études produites par beaucoup d'acteurs beaucoup uh -huh. au uh-huh. niveau international pour dire que l'aide publique au développement, l'aide publique développement, bon, que les grands pays développés redistribuent dans le monde. Je ne parle pas de l'Afrique, dans le monde. Donc l'aide globale, l'aide au développement global dans le monde, est, est fois inférieure à l'argent tirer de la corruption, le détournement des deniers publics est replacé dans les banques occidentales. 30 fois. Mais ça, ça engage la responsabilité des élites politiques traditionnelles. Si c'est juste pour voler, mais certes, on n'aurait même pas, si on gardait cet argent, hum. eu besoin de cette aide publique au développement. Mais cette faillite aussi euh, de l'élite politique, ce que l'on constate, hum. c'est qu'ils sont toujours là, ces hommes. Mais c'est ce que est-ce qu'on peut, est qu peut espérer une mutation en 2012 Mais si vous faites un sondage dans la rue, vous demandez même à des intellectuels, ils vous disent, je ne sais pas pour qui voter. Jamais la confusion politique n'a atteint ce niveau dans le pays. parce que y a énorme besoin de transformation du pays qui habite mm-hmm. cette nouvelle citoyenneté mm-hmm. et ils regardent dans les offres ils ne voient pas grand-chose je vous dis c'est des gens il y a un discours sur les assises mais regardez ceux qui étaient aux assises n'ont même pas pu aller ensemble ils n'ont même pas pu surmonter leur ego et ceux de de leur de, de ce qui les ceux, ceux sont autour d'eux pour pouvoir penser pays et mériter la confiance des citoyens. Mm-hmm. Ce qui était avec Abdoulaye Wade, il y en a cinq autres qui se sortent. Donc aujourd'hui, on va vers des, éclats, des, des, des, des, élections avec un processus de fragmentation de la majorité et de ah. l'opposition. Mais qui retrouvera son chemin parmi les citoyens Qui ont des attentes, qui veulent plus. Le paysan veut que ces euh, conditions soient améliorées. Ah. Les ouvriers, la même chose. Ce qu'on fait à la place, c'est un processus de capture des ressources publiques pour les couches urbaines. notamment les, la fonction publique. On va augmenter les salaires des fonctionnaires. On a augmenté les salaires salaire des, des, juges, mmh. l'inspecteur d'État, l'armée, 13 généraux. Parlons de la Casamance. Justement, nous allons parler de la Casamance, Parlons de mais la on la On donne ce gâteau, cette cerise à l'armée au moment où c'est... Je dis, c'est la Casamance, il n'y aura pas d'élection en Casamance. Les conditions de sécurité pour avoir des, ne sont pas là. Où est l'armée Où est l'État L'État et l'armée sont introuvables sur le pays, sur les questions de sécurité, sur les nervis. Voilà les questions de fond. <laughs> Alors, euh, pour parler de la Casamance, on va parler de la Casamance, mais avant, euh, pour terminer juste sur la présidentielle 2012, la place de l'argent. Parce qu'on a vu euh, que chaque candidat est en train de développer les gros moyens. L'argent sera au cœur de cette présidentielle. Le forum va faire une étude sur la corruption politique et on publiera le rapport sans complaisance euh, pour la première fois dans l'histoire des élections au Sénégal. Si le pouvoir est un lieu de jouissance, uh -huh. comme dit Achille Mbembe, c'est le lieu du repas. <laughs> c'est une symbolique alimentaire qui renvoie à ce que vous dites, l'enjeu pour la capture de l'argent. On a privatisé l'État, son orientation pour enrichir une catégorie de Sénégalais. Mmh. Je prends l'exemple de les conditions dans lesquelles on a repris le méridien président et on l'a redonné à une, secteur, une partie du secteur privé. Je salue toute option qui défend la préférence nationale. Uh-huh. Il faut que cette préférence nationale reflètent et, et, se, et comment, se aux procédures légales de concession du service public. C'est un bien de l'État. Tu y as droit, d'autres Sénégalais y ont droit. Celui à qui on lui a donné y a droit. Mais pourquoi on n'a pas laissé une compétition nationale Vous une compétition. Dans le champ de la préférence nationale. Hum. Et qui ferait que tous les Sénégalais, comme le disent la Constitution, sont égaux devant la loi et les opportunités économiques. Uh C'est un gros problème. Donc, l'argent, dans un État privatisé, c'est l'élément qui structure la légitimation de ce pouvoir. Uh -huh. Parce qu'on redistribue les opportunités, on, on, laisse faire la corruption, on favorise les moyens d'enrichissement pour gagner, garder une base de cohérence. Ils sont liés par des intérêts financiers et matériels. Je vous ai dit tout à l'heure l'exemple le plus patent. L'État, sa raison d'être, c'est de satisfaire les besoins de cette population. Pour le faire, les moyens, c'est le budget. Je vous dis que l'argent planqué dans les banques occidentales est estimé à 30 fois l'aide publique au développement au niveau global. Mmh. Ça vous renseigne sur l'enjeu, sur la corruption et l'argent. Dès que nous sortons un indice sur la corruption, nous sommes attaqués, c'est pas sérieux, utilise l'enquête de perception au niveau du ministère de sur les ménages. Il faut le vérifier. Mais nous, on l'utilise pour voir l'état de la corruption. On dit non, ce n'est pas valable. Les mêmes qui l'acceptent pour l'économie nationale mhm. ne l'acceptent pas pour mesurer la corruption. Donc, aujourd'hui, un jeune économie sénégalais vous dit mhm. que chaque point perdu dans le classement mondial de la corruption au Sénégal est un point de croissance perdu. Il a produit un article scientifique sur la question. Il estime à 384 milliards mmh. les pertes liées à la corruption annuellement quand c'est un point de croissance qui est perdu comme ça. Ça aurait pu construire combien d'hôpitaux Ça aurait pu construire combien d'écoles Ça aurait pu construire combien de routes à l'intérieur Des routes économiques réellement. La bretelle, Matam, Linger et autres. Donc l'enjeu autour de l'argent, vous parlez de l'argent. Uh mmh. -huh. L'argent n'est pas seulement un enjeu à la veille des élections. Il est dans la structure d'un État néopatrimonialisé. Parce que c'est le moyen de bâtir la légitimité de ce pouvoir. Donc, les élections pour cet argent, on l'identifie comme un passage d'un Il faut créer une majorité ad hoc, ponctuelle, évanescente, uh mm-hmm. -huh. par la corruption politique, qui vote pour vous, vous passez et vous vous séparez. C'est juste un contrat, comme les passeurs dans le détroit de Gibraltar. Uh vous voulez passer de l'autre côté, vous payez, vous, vous passez. ne se soucient pas si vous irez jusqu'en France ou ailleurs. Mhm. Mhm. Donc, dans les élections, elle pervertit l'expression de la souveraineté du peuple. L'argent plutôt per pervertit l'expression de la souveraineté du peuple. Mhm. Donc, c'est un biais. Le pouvoir qui en est issu n'a pas la base matérielle pour mener les réformes qu'on attendait de lui. Parce que... Un pouvoir l'a vu en 2007. C'est les ambulants, les jeunes Deux semaines après, on a voulu les sortir des rues c'était des émeutes de Dakar mmh. les ambulants se sont détachés de ce qu'ils ont élu deux semaines avant donc ça pervertit le système démocratique parce qu'on dit gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple mais pas gouvernement de corrompus qui est une majorité fabriquée par l'argent évanescente et qui disparaît quelques semaines après mais mhm. ce fait dans des logiques de l'État néopatrimonial à part la surveillance et la dénonciation, on a peu de moyens pour dénoncer. Alors, nous allons évoquer maintenant euh, la Casamance. C'est totalement la guerre maintenant en Casamance. Et on n'a jamais vu euh, dans l'histoire de cette rébellion quand même des prises d'otages. Euh, surtout au niveau des, des, hommes de troupes, je veux dire, des prises d'otages, on en a vu, mais pas quand même euh, des militaires, des gendarmes. C'est la fragilisation de, de l'État. Uh mhm. -huh. Aujourd'hui, vous voyez des chantages des modes de chantage, des stratégies de chantage, poindre de tous les horizons, syndicaux, transports. C'est un État... Ça témoigne de la faiblesse de l'État. Oui, un État qui est en crise de légitimité politique est un danger pour une nation. Parce qu'elle a perdu son autorité. Je vous dis que une des, un des éléments clés d'un État néo mhm. privatisé, qui donne des privilèges à certains, à d'autres, à d'autres, mhm. c'est sa perte d'autorité. En Casamance, on a laissé pourrir une situation. On a une approche. Il n'y a pas d'approche sur la crise casamanceaise. Il n'y a pas. des messieurs Casamance. Non, depuis, mais... depuis le début, ça ne date pas de Watt. Watt a une vacuité de l'intervention étatique en Casamance au profit d'une informalisation de mini-interventions informelles portées par toutes sortes de gens avec des statuts les plus contestables. <laughs> Bon, quand on regarde la Casamance, l'erreur dans l'analyse de la situation de la crise, on l'a toujours perçue comme une crise régionale. On l'a saucissonnée en trois régions aujourd'hui. Mmh. Ça n'a produit aucun effet. Sous Abdou Diouf, on l'avait saucissonnée en deux régions. La crise casamanchaise est une crise nationale. Et c'est la crise de l'État et de la nation. Il y a les deux éléments fondamentaux qui structurent notre vivre ensemble, Uh -huh. C'est cette fameuse nation la Constitution, uh-huh. a fait émerger, pas nous. Uh -huh. L'acte de naissance ne de souveraineté de notre un partage de l'Afrique en 1885 à Berlin, selon l'intérêt économique du colon et politique du colon. Uh-huh. L'État, son existence procède aussi d'un prolongement de hein, enrobé dans la Constitution française de 58. Un pays, c'est deux éléments qui structurent son identité. C'est des éléments qui nous viennent de l'extérieur, dans uh -huh. des logiques défendant des intérêts de l'extérieur. Uh -huh. La Casamance n'a jamais été intégrée politiquement pendant longtemps et de manière stable dans ce Sénégal, même dans ce Sénégal des colons. Ce qui nous a manqué, c'est un processus de refondation des bases de notre vivre ensemble. Et la question de la Casamance pourrait être discutée dans ce processus. Pas seulement la crise casamanceuse. L'élite politique qui a eu à intervenir au sommet de l'État a porté les décisions. Mhm. Aujourd'hui, vit ça comme un cas de conscience, de mauvaise conscience. Il dit c'est ma priorité. Ça veut rien dire Si vous avez été aux affaires, vous avez été en équipe, vous n'avez pas été capable de d'impulser quelque chose avec cette équipe sur cette question. Mhm. on une sorte d'escalade dans la crise. La rébellion est surarmée. Ah, ah. L'État dit que c'est Bagbo qui a renforcé les moyens. Les méthodes ont changé. Jusqu'ici, un point faible de, du, de l'irrédentisme casamancé, ah, ah, c'est que l'intelligentsia n'était pas mobilisée. Il y avait une aile politique faible idéologiquement qui n'arrivait même pas à formuler convenablement le concept d'indépendance. Et il y a aujourd'hui une intelligentsia qui est qui tentent de résoudre cette question-là. Historiquement, sur la Casamance, l'État a émergé, c'est le deuxième élément, l'État a émergé dans quelle condition Jamais les peuples sénégalais ne se sont réunis quelque part pour dire qu'on voulait être ensemble. C'est le colon qui l'a fait. Il ne faut pas le nier. On a mis dans la charte de l'Union africaine, de l'UIA avant, qu'on partait des des, des, des, des, frontières héritées du colonialisme. Mais ces frontières constituent des dégâts historiquement. Donc rien n'empêche qu'on ait un processus de partage sur ça pour voir les modes de gouvernance qui correspondent. Comment mettre un État unitaire dans un environnement aussi ethniquement et culturellement aussi composite que le Sénégal et d'autres mmh. pays africains On a pris l'administration coloniale. L'administration coloniale est née comment Elle est née selon le projet colonial. Mmh. L'économie de rente construite dans le bassin arachidier. Mmh. On a fait des transformations sur le plan culturel, éducatif. On a mis les écoles là-bas, mhm. les infrastructures, le port de Dakar. C'est le centre arachidier wolofo et qui a construit les, les, les, les comment, les deux confréries. C'est ce melting pot-là qui va donner l'État après l'indépendance. les zones périphériques n'ont pas subi beaucoup la forêt en Casamance. Mmh. Et si tu vois, tous ceux qui gouvernent le Sénégal depuis l'indépendance viennent de ce bassin arachidier. Ils ont été à l'école avant mmh. les autres ethnies. Les transformations qui leur donnaient les possibilités, en plus de Saint-Louis, qui était une euh, colonie d'installation, ce qui gouverne le Sénégal, c'est ce centre Wolofo-Sérère. Et, et la solution... à la sauce mmh. des deux conf... grandes confréries du pays, qui a donné le modèle de gouvernance post-indépendant. mais il a laissé en marche les périphéries aujourd'hui que demandent ces périphéries il faut casser l'état jacobin unitaire dans les assises ce débat a eu lieu uh-huh. comment intégrer des facteurs historiques comme cela uh -huh. sociologiques et des facteurs économiques c'est-à-dire créer aller vers les pôles de développement uh-huh. faut revenir à la Casamance historique comme région on parle de pôle de six régions pôle de six régions il faut aller vers une grande autonomie des régions aller jusqu'à laisser exister des gouvernements locaux et des parlements locaux dans ces six régions naturelles. Je rappelle que sous Senghor, il y en avait sept seulement. Par la variable politique, la manipulation du variable, de la variable politique, mm -hmm. on en est arrivé à 14 régions de manière factice, qui ne correspondent, ça, ne, relève que du besoin et de la boulimie politique de la classe <laughs> intellectuelle. Voilà, Mohamed Mbouch, je vous remercie euh, par rapport, et surtout, je vous permets de lancer un message pour la paix, parce que vous êtes en train de, tra de travailler sur ça, message pour la paix, la non-violence, pour qu'on ait des élections apaisées. Le message est simple. Mm Si la classe politique traditionnelle n'a pas réussi à construire le Sénégal dont rêvaient tous les Sénégalais, mhm. elle ne doit pas contribuer à détruire ce qui en reste. Elle doit laisser la chance aux autres de partir de ce qu'on peut percevoir déjà comme des ruines mm-hmm. pour repenser l'avenir. Mm -hmm. Donc il faut savoir raison garder. Mm -hmm. L'égoïsme d'une partie de la classe, ce besoin d'enrichissement boulimique, il faut que les gens arrivent à le réguler eux-mêmes. Il faut que les citoyens aussi se mobilisent pour ne pas regarder. Surtout les jeunes. L'avenir leur, leur mm-hmm. L'avenir leur appartient. Ils mm-hmm. ne doivent pas regarder ni laisser les gens comment on le dit, remettre en cause cet avenir. Uh-huh. Pour nous, ce qu'on est en train de faire, demain on est à Thiès, uh-huh. avec le collectif des religieux qui nous, ont, euh, qui nous a invités, mmh. qui va participer dans ce combat. Ce n'est pas seulement la société civile qui s'est beaucoup affaiblie ces derniers temps, <laughs> mais c'est tous les citoyens qui sont interpellés, les religieux, l'Église, les jeunes, la presse. Il faut passer des messages. Je reviens du Kenya, où j'ai pu voir comment entre l'entre-deux par des oppositions factices mm et, la manipulation du sentiment ethnique mm -hmm. ont, ont, ont, contribué à asseoir 1500 morts. En Côte d'Ivoire, Après, ils se sont entendus, ils partagent le pouvoir. Aujourd'hui, les morts sont enterrés. Et la presse y a joué un rôle de manque de vigilance. Mm -hmm. C'est-à-dire, dans ces périodes-là, quand on est allé, on a rencontré beaucoup d'acteurs. Mm-hmm. Ils nous ont dit, le fait d'avoir vu des gens avec des machettes attaquer des gens de mon camp, m'ont motivé à reproduire le même geste. Donc la presse devrait faire très attention dans la période qui va venir. C'est une période d'extrême sensibilité mmh. où l'irresponsabilité semble malheureusement habiter la majorité de la, de la classe dirigeante. Merci beaucoup euh, Mohamed Mbodj. Je rappelle qu'il est le coordonnateur euh, du Forum civil et Mohamed Mbodj était notre invité euh, pour cette première partie. Il est venu un peu décortiquer avec nous euh, vraiment ces candidatures et puis la situation du pays, la violence, euh, la crise en Casamance, mais également aussi nous parler un peu de, du système qui a été mis en place. Mohamed Mbodj, je vous remercie. Si on peut observer une petite pause et revenir dans la deuxième partie avec un c'était Mohamed Mbodj, euh, notre premier invité, et on, euh, on, espère avoir Amara Traoré très bientôt, parce que c'est lui notre invité pour euh, deuxième partie. Amara Traoré, bien euh, entraîneur yi mu ngi ci yoon bi moom moo fas yéene doon sonn parce que lundi le Lions yi di dugg li nga xam ne moo di regroupement pour waajal lii di Coupe d'Afrique euh, des Nations mu fas yéene ñëw teew ànd ak ñun euh, incha allah si euh, mbir mi mais balaa loolu ñu dukk jukki li nga xam ne moo di une journaux yi gis nañ Nouvel Horizon Sopi et le Sopi et Wade 74 2012 à bout de souffle. Euh, qui se, ce titre qui fait la une de Nouvel Horizon. La Gazette euh, qui revient aussi sur Abdoulaye Wade, fin d'une longue carrière politique. Après 26 ans d'opposition, 12 ans au pouvoir, Wade est en fin de carrière. Les tours que lui joue sa voix n'en sont pas les seuls. Signe précurseur, c'est à la une euh, de la Gazette qui nous parle en, aussi de la présidentielle 2012, janvier de tous les dangers. Le week-end euh, nous revient avec euh, une interview exclusive de Ami Collet, La Grande Confession. C'est la une Le week-end, son ex Ndiao vit avec une italienne, je l'ai aimé, respecté et chéri. Ce sont les propos de Collet à la une euh, de week-end, une interview exclusive. Mais week-end aussi s'intéresse un peu à la présidentielle 2012, ce qui fait courir les candidats. Pouvoir, argent, gloire, jouissance. Euh, week-end aussi décroche euh, les poignantes révélations de la veuve de Mort L'unique Sénégalais témoin raconte le drame de Florence. Euh, week-end s'intéresse un peu aussi euh, aussi à ces Sénégalais tués en Italie. Satellite euh, nous revient avec beaucoup d'informations en people hein. Karim Wade s'est remarié en secret de la une de Satellite. Euh, Ngoné Revenir, Adama Dignette, Titi amoureux de son bodyguard, Viviane avec son nouveau copain déjà une histoire. Il y a aussi Pape Diouf avec la fille de Youssou Ndour. Youssou Ndour qu'on nous dit qu'il a gagné milliards pour euh, cette année 2011. Alors, pour revenir euh, avec les autres journaux, le point du jour. Le palais lâche le garde-corps de Wad, Baye Mousseba alias Bro et deux autres nervés dans, le même, euh, dans la même euh, prison que Barthélemy Diaz perd dans tous ses états Youssou sûr de sa victoire au premier tour allons dans la rue tout de suite si vous voulez alors parce qu'il a accordé aussi une interview à France 24 hein donc Youssou Ndour qui est en plein maintenant dans la politique Libération Bro Semou libéré plongé à Rufisque euh, donc attaque mortelle de la mairie de Sicap Mermoz Sacré-Cœur à la recherche de l'arme du crime Cheikh Diop Bokar Sy Babacar Faye cueilli écroué un gros risque de tomber alors euh, la tribune euh, nous parle de la justice sénégalaise qui est humiliée avec l'incursion de Wade dans l'affaire de Diaz le juge d'instruction sauve la face comment le président a sacrifié ses nervis Bro Semou Diouf Bokar Cheikh Diop en prison euh, Gaston Mbengue qui se confie dans la tribune la lutte me dégoûte Jean-Paul Diaz redoute l'assassinat de Barthélémy Diaz le pays au quotidien fin de cavale pour un fugitif comment Bro a été piégé par la gendarmerie Jean-Paul Diaz craint pour la vie de son fils Abdoulaye Faye en sursis point d'intégration c'est la euh, une de le pays le pays aussi Euh, qui nous parle de la visite de Karim Wade dans la banlieue. Karim Wade engage la reconstruction de la banlieue, euh, inondation, obscurité, enclavement. Euh, Roger Mendy qui nous parle déjà des Lions. Je vote l'axe. Mangane, Malikou Diakhaté, enfin connaisseur, quand Roger le dit. Walf Grand Place euh, revient sur l'affaire Barthélémy Diaz, les détails de l'arrestation de Bro et compagnie, le garde du corps de Wad, arrêté chez lui entre 6h et 7 du mat, un chauffeur du palais les de Wade euh, Melokan s'intéresse un peu aussi à la lauréate du concours NEPAT musical sur Walf TV Lala Diop se raconte et puis il y a la colère de Touba euh, pour les préparatifs du Magal le populaire le populaire euh, nous parle un peu aussi de cette affaire de Barthélémy Diaz Bro Semou deux autres nervis à Rebeuss les gardes du corps ont-ils été libérés les avocats du parcelliste réclament toujours la tête des commanditaires Touba dénonce les blocages des des blocages et des sabotages c'est par rapport au Magal de Touba Jean-Paul Diaz Bart est en danger parce que Bro est dans le même endroit que lui alors Sud Quotidien revient sur la vie de Barthélémy Diaz est-ce que sa vie est en danger après l'arrestation de Bro qui mais la presse nous parle aussi de la libération de Bro Walfadjri Wade lâche son bro arrestation du garde corps de Wade Youssou Ndour croit en sa bonne étoile vainqueur dès le premier tour le quotidien nous parle de l'arrestation de Bro hier à Nord-Foire par la gendarmerie Gorille de Wade en cage il a été placé sous mandat de dépôt à Rebeuss un chauffeur de la présidence un membre de l'écurie de Zoss et un des nervis blessés le rejoignent dimanche dernier Bro était déjà à Touba donc euh, en des chantiers dans la banlieue Karim Wade patauge dans les yeux Youssou demande la communauté internationale de raisonner Wade il a été de RFI de France 24 euh, très prolixe depuis qu'il en politique l'observateur euh, parle de rebondissement dans l'affaire Baye Moussé Babro et Semou Diouf euh, ont été libérés, très vite arrêtés et libérés, les deux gardes de Wad, les deux gardes-corps de Wad placés sous contrôle judiciaire, l'intense lobbying d'un ministre d'État. Bro, je jure sur le Saint-Coran que je ne suis pas mêlé à l'attaque de la mairie de Barthélemy Diaz. En combat de lutte également aussi, il y a le professeur à l'épreuve du Lion, c'est Balla Diouf euh, ya y a aussi euh, Profil Dembaba, attaquant des Lions du Cul, un buteur Provence, euh, Cap Sitam. Quand j'ai voulu faire mes adieux à El il a refusé de me recevoir dans une interview. Alors, euh, il a Las qui revient euh, sur l'affaire Bro, qui nargue les gendarmes, ça pavane à Rabos et s'en va. Donc, c'est pour revenir un peu sur l'affaire de Baye Mousseba. Alors, nous allons sans plus tarder essayer euh, de recevoir euh, notre invité euh, qui va venir parler euh, xam ngeen ne ñu ngi wax ci bébé modu lu bëree bëri bébé Modou wax nañ ci moom wax nañ ci moom lu bëree bari wax nañ ci moom lu bëree bëri te gis nañ ne fi mu nekk nii nekk na loo xam ne moom lu ñu ñor la woon tey jii dañu def loo xam ne loo xam ne lu doy waar la moo di fexe ba indi bébé Modou mu ñëw toog. bébé Modou mi ngi ñëw toog ànd ak euh, euh, kenn koo xam ne moo ko fi indi pour ñu waxtaanee ci ay mbiram lu am solo la parce que boobu ba léegi ñu ngi tudd bébé Modou kenn xamul ñii di wax ne jàppale nañ ko ñii yow def nañ ko comme lu wala fi di wax ñu sàkku bébé Modou ñëw toog ak njabootam ñu xam mbir yooyu nan la fa demee maa ngi lay dalal bu baax a baax. Pape na def maa ngi lay nuyu. et di la souhaiter bonne heureuse année. Mm-hmm. et meilleurs lii ñëpp bëgg ci àdduna bi ci lu baax yal na leen ko yàlla defal. Uh-huh. may leen ko. Uh-huh. waaw léegi nag euh, dama leen indiloon bébé Modou. Uh-huh. parce que kaawu bébé Modou. dafa doon loo xam ni que dafa doy waar trop. te lu nekk dégg nañ ko ci lu nekk gis nañ ko ci. jox nañ ko sax visa wutal nañ ko visa ba mu am visa war a dem ñu yàq visa bi. kan moo ko yàq. ki ko yàq mooy koo xam ni que euh, Thierno Sow bu Italie dafa defoon démarche yëpp. benn frère am bu doon jaar par la route di ñëw fii au Sénégal mu ni contactel famille bi pour ngeen mën a déposer visa bi. Ah. bon bi ñu contacté bi mu ñu contacté man nekkuma fi woon j'étais à Bangkok rien que pour bébé moo du fa la ma ndox mi fekk sax ko ñu ah. remonté au bi fi amoon. Ah. bon léegi Thierno Sow euh, El Hadj Sow muy la frère à bébé Modou bi mu ñëwee il mo il faut au lieu mu wax ñu. li nga xam ni moo nekk moo mën a nekk mu wax ñu ko waxuñu ko dafa ñëw rek xale bi ma fi bàyyi woon mu ko ne déy rien à personne maa ngi lay toppatool pour xale bi dem am naa papier yëpp fekk am noon na ay coréens yu taxawoon. Mhm. ci coréens yi taxawoon bëggoon yóbbu xale bi. Mhm. bon léegi man leen bon donc euh, bi ma nee nañ joxe passeport bi ci la ma booy bi wax ni que am na ñoo xam ni que Italie lañ jóge pare nañ pour yóbbu ko boo matul ci biir semaine bi ñu yóbbu ko. Mhm. mais wanewul benn papier. benn papier boo xamee ni que mën nañu sukkandikoo ci papier bii ni nga xale bi dina dem hôpital bii jël nañ ko en charge nii jël nañ ko noonu non non wanewul dara dara dara bi ñu ma ko waxee man leen loolu tey na xel et puis waa ji nii ñun ñoo koy paasal paasal xale bi paasal yaayu xale bi bon hébergement bi xamuñu nu mu demee xamuñu ci woon dara man leen nee leen ko mu xaar ma maa ngi jógee Bangkok di ñëw mais en temps mu ni noonu mënul xaar loolu bu ñu bu ñu bëggulee daal xaalis bi man maa yore woon xaalisu bébé maa ko yore. donc maa mën a fay xaalis bi maa mën a fay les billets d'avion. moom ci boppam mu ni mënul xaar loolu. bu dee loolu la day dem ci presse bi wax que la famille de bébé Modou day wut xaalis ci xale bi ma ni ko nag demal ci presse bi nga wax presse bi nekk lu la fi. Mhm. léegi wut xaalis si bébé Modou léegi nit ñi daan wax ne indi nañ ay contribution waaw lan lañ fa indi. yàlla xam na ni ci man li ma téye. Mhm. am na ñoo xamee ni que même laa douane joxe na. contribution. Ah. douane douane bi nekk moo moo huit. Ah. am na lu ñu indi am na benn daam boo xam ne bëggul ñu sudee xam xamuñu ko sax ba léegi nanguwul waxi turu nangu wax ja il nous a donné deux millions Carlo di def na ci bon am na ñu bari def daal compte bébé Modou bi ma yor man y' a onze millions et quelque. onze million yi mënu ko jël charge. non non onze millions jël ko man sax. laata moo ko mën a jël en charge. normalement. Ah. man sama bopp sax mën naa ko jël sama bopp en charge mais. comme xaw ma fi dara dëkkuma fi nekkuma fi man Paris laay vivre. lu tax mënoo ko lu tax mënoo ko yóbbu. non bu ma visa rek moo ma moo ma bloqué fii ay visa bu fekkoon amoon naa ko parce que hôpital bi ma nee nañ ma mën nga déposer caution bi sax te duñu la ko duñu la jox visa au niveau de l' ambassade donc du ma ko tenté. visa mais mais ci loolu visa. est-ce que ñaata visa ngay laaj pour yóbbu bébé. ñaari visa rek laa soxla muy yaayam ak euh, muy bébé Modou. ak tantam bi nga xam ni moom la moom moo ko yor depuis mu nekk hôpital. ana yaay. bébé yaay jaa ngi fii mais yaay ji xamul dara. léegi bébé Modou pour mu dem France kan kan moo koy yóbbu. moom ak tantam bu ñëwee bu ñu accès man sama bopp man sama bopp ma jël ko en charge. à kon problème bu bébé Modou am visa la. man sama problème man man laa sama problème visa la bébé Modou nag mi ngi nii. képp ku ko yéene kan am problème visa yow. non bébé Modou moo am problème visa. man amoo problème visa loolu du sama problème. waaw ñu bëri dañuy wax ne yéen da ngeen utiliser Bébé Modou pour liggéey ci moom xaalis wax ju dégg naa ko. waaw dégg nga ko. dégg naa ko. waaw xam nga kii bi mu bi mu juddoo bi mu juddoo xam nga kon xaw kenn kenn kenn xaalis. Ah. laa ko jël man en charge muy feebar ñu may woo. de Europe sax naan ma xale bi feebar na ma jógee Europe ñëw hôpitaux yi nekk daay lañ ko def ba tey tey suma oto nii ci biti Babacar Ba bi mu doon fi yàlla xam ne bu fi bu fi. mais lu def leen démarche yi pour am am visa. def naa démarche yëpp ci autorités yi ñëpp nag am ministère opposition daal opposition bi laa la wax. Hmm. yóbbu na courrier état bi man sa wàllu bopp wax bu amoon visa mu yóbbu ko. est-ce que ma nga rejeté ko. du xam naa liñ am ambassade de France. mais am na benn cautionnement bi ñu may jox te nee nañ ma à l'hôpital euh, Robert Debré mm-hmm. fi mu rek nee nañ ma que ils ont tant de xam dañ ko rejeté xam nga Modou day faj parce que bii na fii dem di faj ñu leen jox visa ñu ndaw xam ndaw ko jox visa lan mooy problème bi mënuñu ko jox visa ab xam fii état bi début c'est un sénégalais mm. comme tout am na cër ci dëkk bi mm. am na wàll ci dëkk bi am na ministère yoo xam ne que ñu la concerné te ñun seen bopp ñoo waroon a xaalis bi visa boobu laaj leen jox ma ko bu ñu ko ma ko ba naa ko toppatoo loolu naa bu nga xale bu duggoon te gën loolu du problème. que te quoi kon daal ñor nga dem demande ba nga euh, man man c'est France euh, lu neex la ñuy def d'accord mais l'instant que ñu rejeté ko pap dama yàgg demandé ambassade de France à visa du parce que ma nekk dama yëngu euh, lu ci nekk ko fa ñi def yëpp mais man non non fi boo fi waxee tant que doo xam ne lay doon. waaw parce que dafa am ou bien à problème de rëy il faut

time kafin matakafiri kwa kulinda kifitili maana mambo ya sfo mais muna arbo sunye mekwa mani buko na nyingi ya moyo bu me nyora mo do yo mo ni sa khabi ko di ya mo de ko yo li sa reglan wa no pro sa reglan

ligne bi directement wax ki visa la soxla loolu la ñu wax bu nekkee ne présidence mën nañu fexe ba yombal ko visa bi mu dem faju ji c'est très comme ñu nga engagement mën ko faj bu demee bu demee extérieur donc autorité yi képp kuy seetaan nga woote dugg jël engagement ferme ñu déglu la mu jeex ñu xam fi mu nekk nii mbir yi féetee boor woote dugg ci ligne bi wax ñu xool na la ministre de la solidarité wala ay Mbodj wala keneen Euh, woote ñeneen ñu dugg ci premier ministre wala kun dugg mu jeex ñu régler problème mu bébé Modou parce que je pense que wax ji bari na ci lekk na xaalis bi famem dañ koy euh, li utiliser pour kii léegi comme ñëw nañ fii toog ngeen gis leen nii mu jaxarañ jàkkaarloog sénégalais yi ñu wax problème une bonne fois pour tout tey jii ñu régle ko fii euh, ci biir samedi mais te pare gu ma Pape euh, li ma doon wax ci euh, El Hadj Sow boobu moo dem ba ambassade de France ba ambassade d'Italie. Uh-huh. annulé visa yi. parce que joxuñu ko billet d'avion yooyu mu doon laaj pour moi c'était louche parce que xaw xamu woon fu muy yóbbu xale bi xamu fi xale bi jëm te doo jël xale rek jox ko benn waa ju ñëw rek mu ànd ak moom. Uh-huh. loolu c'est pas sûr. mu wàññeeku dem foofu ni carrément ambassade d'Italie ni leen ko yaayu xale bi nee na buggul xale bi dem euh, Italie France la bëgg mu dem. Uh-huh. te loolu amul. moo koy wax nag aussi te frère mboobu pour xam ni que li mu li muy liggéey yëpp mag jàng koy yàqal. parce que frère bi ku baax la ah. dafay dimbali ay nit. mais je pense que léegi kay problème bi c'est très simple. nit ñu woote dugg en ci ligne bi ñu wax ak ñoom nga wax directement ñu jox leen visa. waay visa bébé Modou mu. mu dem ñu faj ko mu mais yow compte bébé Modou ñaata la am fi mu nekk nii. compte mën na relevé yaa ngi sama oto compte bi ma yoree moom yaa onze mille huit cent. Euh, onze mille euh, onze mille euh, onze onze mille euros huit cent. Uh-huh. Uh-huh. waaw kon compte Carlodi. Uh-huh. bi ko Carlodi ubbil y' a deux millions cinq cent. bon Adja Sy nag moom Njagamaar la yor compte Njagamaar xamaguma ñaata la ko parce que kii tamit Adja Sy moo ko yor quoi Adja Sy koy suivre. depuis histoire bi am ko d' accord donc je pense que fi mu nekk nii mën nañu wax ne Bébé Modou daal cas bi mi ngi nii ñëpp gis ngeen ko donc nee visa moo ko fi téye. xaalis bi je pense que au niveau de l' état nañ jël suñuy responsabilité état ko en charge yóbbu ko France euh, ñu faj ko mu jeex parce que defe naa benn mënuñu am benn cas mel nii au Sénégal depuis des mois ñu koy wax mel ni ñu mënuñu ko régler vraiment ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax. Euh, ci ñëw bi nga ñëwoon fii di wax ne bébé Modou. moom on va en faire waaw comme ni ñu ko tàmmee di waxee fii euh, képp koo xam ne bëgg nga ci def benn gest ci bébé Modou. Mhm. posé nañ problème bi. nga ñëw. Mhm. toog wax wax boo jëlee euh, responsabilité bi mën nga ñëw jokkoo man directement man mhm. dinaa wax ak yow mu wutal ànd mhm. dem ambassade France si le faut dem gisi ambassadeur bi direct consul bi mu defar visa ñu dem ñu jox ko bébé moodu bébé Modou loolu war nañ ko mën a très rapidement maa lay sant di la gërëm bu baax baax si ñëw bi nga ñëwoon tey ci biir émission samedi mag mhm. di wax ne bon bàyyil nañ la suñu numéro téléphone yor nga ko parce que dañuy jokkoo maag yow lu bari mhm. donc pour bu nekkee ne am na évolution ñu mën ko xam mhm. ñu régler définitivement le cas de bébé Modou jërëjëf Pape maa lay gërëm aussi ci invité bi nga invité damay waxal nit ñi rek man sama bopp yàlla xam na ni yàlla rek a tax may wax soxlawu ma dërëm uh-huh. kii ku ko dimbali aussi moom nga dimbali waaye du ko lekkal un franc dama koy yokk maay jël suma xaalis di ko dugalal maa koy faj maa koy def lépp uh-huh. donc soxlaawul ma kenn léegi dama ne bu ko état la jox xaalis xam nu def bi moom mooy régler directement au niveau de l'hôpital xam naa man loolu laa bëgg xam nga xaalis moom fu mu génn rek coow day am coow day am donc mieux vaut man je préfère état bi si ah dénk ko ambassadeur u Sénégal ca France. waaw ah a Souran mu dugg foofu mu faj ko. Mhm. état bi def mu nekk entre diggante service ak service ñu fay ko mu jeex. te kii Pape surtout Ablaye Wade la ah. hmm. li ma lay wax de lu leer nañ surtout Ablaye Wade direct la. waaw comme surtout Ablaye Wade. ma ngoog nag te ñëpp bon donc politiciens yi dossier bi. Ah. je pense parce que ñu bëree bëri da leen yóbbu di leen faji ci fonds politique yi. waaw donc sax ñu bëree bëri. yóbbu ñu bëree bëri je crois que lii dina réglé wu tey. ah xëy na euh, yaakaar naa yaakaar naa ko ci yow moo tax ma ñëw seet si la. xam naa loolu xam naa loolu jërëjëf. jërëjëf euh, ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax baax maa ngi doon wax sunu prochain invité euh, fu mu nekk nii mooy l'entraîneur des Lions Amara traware Amara traware qui est l'entraîneur des Lions xam naa ndar laa ko jëlee nag moom Amara Amara moom <laughs> Amara moom dafa nekk koo xam ne souhaité nañ trop. partagé ak moom plateau bi ko ñaanal bu baax a baax parce que gars yi ñu ne fi nekk nii pot bi rek la ñuy xaar grand <laughs> ah pot bi rek la ñuy xaar le temps nga wu ñu ñëw ci équipe nationale Amara maa ngi lay nuyu. waaw Pape maa ngi lay fay. waaw léegi euh, li ma lay njëkk a laaj moo di gis nañ ne fi mu nekk nii tànn nga le choix des 23. Mm. Euh, gis nañ ne ça a été facile wala difficile. Le choix, a été a été facile donc dama wax lu ma neex mais ça a été très difficile. parce que xam nga ko wàcc rek da ngay. waaw ku wàcc ko tànn wàcc waaw tànn dafa métti. tànn dafa métti surtout que nag bu fekkee da nga am joueur yoo xam ne ñëpp a xarañ. donc euh, mais à un il faut. nan nga tànnee il faut nga tànn. nga tànnee. waaw ni ma tànnee mooy maanaam xam nga dañu dañu fubal six matchs. si ah. éliminatoires yi. Euh, bi ñu fubalee si match yi nga xool maanaam ñi ñi fubal match yëpp ah, ñi démarré match yëpp chaque match onze yi ak ñi nekk ci bi loolu déjà daf lay guider. Uh-huh. Euh, boo xoolee maanaam liste bi ñi ci nekk ñëpp euh, ki ci gën a tuuti li mu fubal mooy Armand. Uh-huh. moo fubal dernier match bi. boo xoolee ku na daaf. Euh, uh-huh. fubal na ñetti match yi moo fubal ñetti premier match yi. c'est-à-dire que blessure moo tax ñëwul woon. bi mu gaañoo aussi gisaat nañ ko donc loolu moo lay guider. et parce que comme que éliminatoire lañ jëm te li may wax souvent que euh, dañu yaakaar ni coupe d' bi mi ngi commencé le 21 coupe d' afrique mi ngi commencé depuis le 5 septembre. Uh-huh. si éliminatoire yi. éliminatoire waaw. voilà donc ñi ñi ñi def éliminatoire yi ñi ko joué. Uh-huh. Euh, xamante ñooñu ñoo ñoo ëpp chance que ñi nga xam ni joué guñu. Uh-huh. gisaguñu leen dal. nga moo tax noonu nga tànnee. Euh, dégg naa ku mel ni Jomassi mu ne da nga manqué respect. waaw xam nga xam nga. des fois ak moom interview mu ne moom du waxati te xam nga xam nga des fois Sénégal. man li ma xaw jaaxal mooy bu ñu defee 23. je pense que ñi ñu war gën a joxe kàddu gi mooy ñi nekk ci 23 yi benn. parce que gisu mosuma gis yoo xam ne dañuy joxe 23 ñi bokkul ci 23 ñu gën nekk star que ñi nekkul ñu <laughs> nekkul waaw loolu dafa xool doy uh-huh. di wax ne aussi bon xam nga jour man jour laa woon uh-huh. te jour boo ko tànnee souvent euh, bu ñu ci day am déception e donc euh, loolu aussi lu normal c'est-à-dire que jour bu am caractère bu bokkul sax day am déception mais nit dafa war di contrôler tu ci waxam surtout que man li ma wax leer na boo bokkee ci entité euh, du ma nangu koo xam da nga bokk ci entité Euh, bu ñu tànn rek nga bugg xarañ ñeneen c'est-à-dire que moom day xaw a am cest à que ñi nekk ci ñi nekk ci biir. Uh-huh. maanaam respecté loon parce que bu ñu la jëloon dañuy génn ku nekk ci biir. Uh-huh. donc euh, des fois moo tax mais. des moom métti moo demee noonu. mais nañu waxante dëgg aussi. parce que aussi donc xam nga équipe bu fekkee da nga ko yor wala ante ba nekk dañuy waxante dëgg parce que aussi. Uh-huh. Euh, joueur bu mel ne Diomaye si joueur bu xarañ la joueur bu baax la bu am expérience. ci équipe bi donc tey. Euh, ku mel noonu wàcc ko wala ku mel ne Pape Kouli tey ko wala ku mel ne aujourd'hui Mame aussi. Uh-huh. Euh, c' est des choix yoo xam ni vraiment choix yi mais vraiment ku mel ne Mame Biram c' était difficile de may éliminer ko parce que quand euh, jour bu xarañ la jour bu vif la jour bu jour d' avenir la maanaam. it bokk na tamit bokk na ci éliminatoire yëpp et chaque uh-huh. fois dugg na bi mu duggee am na chance mais donc bon li gën a handicapé mooy xam nga poste mi muy maanaam oh, ñi fa nekk ñëpp dañu compétitif donc bon di wax ñoom ñëpp nañu nañu nañu nañu liggéey ñu parce que euh, Coupe d'Afrique lañ nekk euh, bu Coupe d'Afrique bi day jeex incha allah ñu ak euh, li ñu fa ak passeport ñu fa am mais am na leneen luy continué waat mooy maanaam déjà 2013 am nañu éliminatoire en uh-huh. septembre uh-huh. am na éliminatoire coupe du monde uh-huh. donc bu ñu la ñàkk tànn rek nga bëggu Euh, xalab ñeneen ñi xalab ñeneen parce que souvent xam nga boo jëlee 23. Mhm. Euh, c'est-à-dire que boo nee dama waroon dugg rek te am na ku ñu war a génne. donc loolu nañ ko aussi dañ koy. dañ ah, koy dañ koy dañ koy bàyyi xel te beneen bi mooy aussi man gisuma monde ba monde ba monde amee gisuma mukk Euh, nga yor sa cest dire nga nekk patron fenn euh, am ñoo xam ne lay liggéeyal. Euh, nga ni nga nga ne dama lay génne wala nii bu leen jox explication depuis quand le borom kër war a joxe explication day xaw a doy war quoi. et surtout que beneen bi dama ci gën a leer mooy pédagogiquement gis nga entraîneur boo xam ni chaque fois bu defee choix. entraîneur boo xam chaque fois bu defee choix tey su ma defee choix jël maanaam benn joueur jëluma benn joueur ñëw ni ko tey lii moo tax jëluma la. beneen match dana amaat si si beneen semaine ñëwaat. Uh-huh. ma jëlaat euh, ma defaat choix euh, jëluma la jëlaat jëlaatuma la fekk man na su ma jëluma la parce que lii moo tax beneen naa la jëwaat mais match dana match bi nu muy demee daa tax troisième choix dana ñëw du ma la jël. Uh-huh. mais en fait en fait. bu fa nekk di joxe explication maanaam da ngay nekk. lay wax waxatu doo waxatu dëgg. et que pédag pédagogiquement c'est interdit. c'est interdit de. de justifier c'est pas c'est interdit mais euh, c'est pédagogiquement c'est éthiquement yoo ko quoi chaque fois parce que nit boo demee ba justifier ce choix c'est-à-dire que nga choix ñi nga ñi nga jël mm-hmm. non mais c'est c'est li nga wax <laughs> mais li ñuy wax ne c'est caractère. Amara mm-hmm. est très <laughs> joueurs dañ koy wax d'ailleurs joueurs yi dañ koy wax et puis on a vu aussi ci période bi ñu jàll nii rek. tu as mm-hmm. été très ki loolu mooy force équipe léegi wala. waaw man bañkat laa ko man moom vraiment ba may déjà gendar laa dëkk maa ngi nuyu sama mbokku gendar yëpp ak waa nuyu waa Ndar yëpp. <laughs> fa laa fa laa jógee donc euh, fier d'être gendarien d'abord. et que souvent dafa lu ñu bàkkee ba pare boole ci ba ma nekkee xale ba léegi ba ni ma la màggee bañkat la mais en respectant aussi règles yi quoi parce que nit uh-huh. euh, loo xam dañ ko teg muy muy société muy structure muy lépp boo fa ñëwee boo fa duggsee da ngay respect lañ fo teg uh-huh. euh, mais ku ne nag am nga sa défense de caractère mais souvent gagneur la donc euh, man bëgguma di même un jour messi wax na ko quand j'ai agence su ma perte du ma nangu xool nit ñi quoi uh-huh. donc dama ko yaa eh, koy joxe yaa ñaari amara yaa amara boo xam ni bu compétition nekk si bir compétition ak amara boo xam ni bu compétition jeex na mooy. comme ni ko comme nii <laughs> comme man ak yow. mais bu compétition commencé vraiment moom kenn du ma la mm-hmm. et que gis nga toujours euh, équipe day am là li ñu at at yu ñu ñu ñu ñu jàll yëpp nga li ñu gën a tax gañewuñu kay talent baa ngi fi qualité yaa ngi fi mais dañu xaw a un peu manqué mental. Euh, mental sax na. mais mental boobu dama mel ni dama ko gis si équipe nationale parce que maa ngi koy wax la dernière fois ma ne mm. euh, équipe nationale bu doon jouer. Mm-hmm. bu ñu demee ba def euh, quatre-vingt-cinq minutes mu nekk zéro zéro. Mm-hmm. ah da ngay sentir sax si joueur ni ngi xaar arbitre bi siffler fin match <laughs> mais vrai. <laughs> dañ ko doon mais contre Cameroun ba quatre minute booy jëli affaire. xam nga contre Cameroun la xool parce que mooy bii décisif bi. Mm-hmm. mais nañu may bàyyi ba suñu match contre Île Maurice. parce que si passé récent. bu ñu naan football ak maintenant équipe yooyu bu ñu gagné 2 3 dañuy bàyyi. dañuy doyal dañuy wax naa ko benn ancien international parce que mm. ñoo nekkoon ci stade di mm-hmm. seetaan. Mm-hmm. mu ne ma ñuy dugal ba si set mu ne ma ah, lii dafa yomb ma ne ko mm. yàgg na fee yomb ba pare ñu génn jooy. kon bu yombee <laughs> nañ ko yombal suñu bopp. mais bien sûr <laughs> bon euh, donc ba ci 90 minutes jours yi ñu ngi euh, équipe bi. Mm-hmm. ñu dem ci kanam pour dugal et pour bañ a jël but. wane na ko match contre Cameroun à l'aller wane match contre Cameroun au retour. Euh, damay insister beaucoup sur l'aspect mental parce que mhm. aujourd'hui vous savez aujourd'hui tout le monde sait jouer au football et tout le monde euh, a les ingrédients aussi pour entraîner mhm. mais comme j'ai l'habitude de dire souvent à une détermination donnée il faut apporter une détermination mhm. parce que nit bu ñëwee déterminé da ngay wax ne lii nga def man maa la gën a bëgg utilisant en maintenant li nga xam ne mooy boole mooy football mooy le talent <laughs> donc am na ñu yi aussi am nañu talent donc aujourd'hui petit à petit ñu ngi dugg si organisation bu baax maintenant euh, il faut que psychologiquement le football sénégal le sport sénégalais en général même <laughs> gagner en mental parce que souvent boo xoolee Cameroun yi boo xoolee yenn pays souvent loolu la ñu daan gagner quoi day ñëw euh, affaire bi dañ koy waxal xat xat xat xat xat ñu ñu ñu xaw a bàyyi quoi et que su et que Euh, li ñuy mën a. li ñu gën ñu ko bëgg ko waaw waaw gën ñu ko bëgg. mais donc boo xoolee même quand ma yore Linguère même may may football aussi même équipe vous savez dinaa jox benn anecdote gis nga bi ma demee Metz di football yi bi ma waa Metz jël si. Uh-huh. Euh, fekk maa ngi gëñoo dañ ma jël si ma ñëw may signé sama contrat. et fekk am na joueurs yu mag yu fa nekkoon ay Kastanda ci PS tout ça. Uh-huh. mais l'entraînement di dama la jël. parce que pour nga nga tiiral ma gars ci kanam parce que gis naa ne yow da ngay. xëcc da ngay xëcc et te laisse pas faire. Ah. et fépp fu ma jaar aussi noonu laa def. noonu laa noonu laa def ñi may ñi may ñi xëcc. parce que gis nga souvent staff ak euh, moo tax ñu naan toujours éducateur dafa am am am jikko ju baax parce que staff mooy support sentimental l'équipe gis nga joueur yi ñu gisee seen entraîneur noonu la ñuy en général xaw mel ci terrain bi. c'est vrai mais lan may forcer équipe nationale. parce que euh, pour la première fois quand même je je l'ai dit ici hein, mm-hmm. à ton absence néew naa mm-hmm. euh, Amara mënuñu lu dul delloo ko njukkal parce que mm-hmm. pour la première fois avant même dernier match poule qualifié nañ mais bu yeneen équipe yi yeneen entraîneurs yi ñu fi doon jël yëpp dañuy wax ne kii bu dóoree deux Sénégal dóor trois ñu xool yi calculer loolu lan mooy force équipe nationale force euh, la première force équipe nationale mooy d'abord humilité humilité c'est important équipe bi dafa am humilité Euh, donc, et que et respect entre, entre tout le monde. Uh -huh. Aujourd'hui, euh, quand même, c'est le moment de saluer la fédération aussi parce que aujourd'hui, la fédération avec staff et la direction technique, ils dans la vérité. Uh-huh. Donc, amul nahate, amul non, C'est que Euh, et beaucoup de concertation et beaucoup d'échanges. Mhm. loolu dafa ñëw ba ci jour yi donc bi ma bi ma ñëwee ak sama collaborateur Abdoulaye Sarr Mayassi. Abdoulaye Sarr Mayassi dañuy ñëw ni cadre baa ngi nii ñi euh, ñëpp dénominateur mooy Sénégal. Mhm. donc euh, amul nombre tànk képp ku fi ñëw lii ñu teg da nga koy ngay doxal. ba pare laaj leen seen xalaat ñëpp ñu nangu ko ñoom ñu nangu ko ñun ñu nangu ko et puis guider leen ci loolu ñu dem. Mhm. et maintenant aussi il y a l'immunité il aussi la générosité dans l'effort. Uh-huh. Aussi, il y le talent. Donc, c'est une équipe talentueuse. C'est une équipe talentueuse. L'eau humble, humble, l'eau généreux, généreux ça va être un talent d'Odem. Parce que le football, d'abord, c'est d'abord le talent, le potentiel. Cette mm -hmm. équipe-là, individuellement, potentiellement, et que collectivement, petit à petit, nous allons asseoir des choses. Parce que, une fois après 2000, 2010, euh, ñëpp bàyyiwoon ñëpp découragé woon. ñu ngi doon wax naan on va reconstruire ci 4 ans 5 ans mais bi ñu xoolee li ñu am. et petit à ñu ngi asseoir loo xam ni ci année yu ñëw comme ni ma ko waxee man euh, dama interdit sama toog fii euh, si trois ans yi ma fi signé toog fi ñetti at li fi andi coupe. loolu nga bëgg. ah trois ans yi engagement ah, boo jël la kooku kooku ci trois ans yi da ah, bëgg a jël coupe euh, xam nga ni da ngay am. da ngay am da ngay am ambition da ngay sawlu mais yàlla mooy mottali. Uh-huh. mais yàlla mi nga xam dara tëw ko donc donc loolu. est comme je dama ni. Euh, au bout de l'effort yàlla ko sal xol na ah, la juste récompense donc euh, li mu am li mu li mu war yëpp dañ ko. ku sonn yàlla dimbali la dañ ko dañ ko ci def. Mhm. Euh, donc par la e que j'aime bien les raccourcis. ça veut dire. cest à déjà am nga boo waree dem boo waree jóge fii. Uh-huh. dem ndar. Uh-huh. Ah, Euh, ak oto. waaw mën ko dem ak avion en trente minutes. <laughs> moo gën a noppale. waaw ah, bu baax a <laughs> alors euh, si équipe bi la ñuy wax toujours y a aussi le sérieux mhm. la sérieux on a vu que les jours sont très sérieux parce que gis naa ngeen def éliminatoire dégguma ci boîte de mhm. nuit. Mhm. dégguma ci ay écart daal a bëgg a wax. parce que gis nga gis nga Pape. Euh, loo gis dafa loo gis ci àdduna. Euh, pour mu dox foog mu am foog nga am gis-gis ak tekk ci ay règles. Ah. ce que j'ai la vision et les règles sont les graines du succès. Ah. donc partant de là je pense que wax naa ko léegi day ñëw teg fii. rek ah. dañuy ñëw nii nii la ñuy doxalee parce que aussi gis nga expérience. loolu lay doxee ci équipe. Euh, et souvent dama koy faral di du xam nga souvent di naan équipe 2002. man si laa bokkoon. Uh-huh. donc dañu naan équipe 2002 de nuit mais je vous dis boobu. Uh-huh. am na yoo xam ne bari dañu yoo xam ni. Uh-huh. maanaam du du loolu ñu ko doon wax du woon noonu. man ci équipe laa bokkoon man loon seen mag. mais gis nga la fa amoon. bu fa fekkoon comme ni ñu ko waxee ay boîte de nuit moom lañu doon def. donc équipe du dem demi finale du dem finale et pour du dem demi finale. et ku ma xam man xam ni sama sa. sa ah, sa dañuy tudd loolu toujours mais am na pàcc am na mois yoo xam ne ko naan am vraiment de détente yoo xam ne ko naan am. Mhm. par exemple comme bi ñu demee demi bi ñu demee Mali bi ñu fubalee ba premier tour bi ñu deux matchs mais ñu autorisé joueurs ñu ñu dem kooku dafa bokk ci aussi. oui oui changer un peu mais nag xam nga lu yi du ñuy jaawale. parce que mhm. bu ñu joueurs yi ñëwee wala bu ñu amatee les matchs dem nag féexal seen xol loolu la ñuy jaawale ak période bi voilà kon ah, confusion là vraiment je tenais à à à dina fi sax confusion ci diggante Maliku ak Irage mhm. donc ci ci ci ci loolu quoi te Maliku sax Maliku waxewu ko noonu sax far mhm. donc ce n'est pas ça donc donc di wax ni ñii ñii euh, beneen génération lañ te euh, li ñu gën a farataal ñoom mooy bu saison bi jeexee dañuy ànd dem mag donc c'est impressionnant ah bon ah bu saison bi jeexee. bu sax saison bi jeexee. waaw ah. donc ñoom ñëpp ñoom ñëpp. Diomassi donc Moussa Sow Issa Dia Jacques Fati mooy imam bi <laughs> et Souleymane Diawara donc ñoom ñëpp Demba Ba. Mhm. dañuy dajaloo dem Makka. dem umra umra ji ziara ji et de suite te dina wax ne ñoom seen force mooy cinq heures du matin la yeewu julli comme ni ma ko wax ci benn journal. Mhm. Demba Ba mooy noddu. mooy imam bi moo ko Souleymane Camara. Mhm. Jacques Fati mooy jiite. donc bu fi Jacques Fati nekkul Souleymane Camara mooy jiite donc euh, gis nga bi ñu demee Cameroun dem nañu Cameroun match euh, match Cameroun euh, retour ou bien même bu ñu ñëwee bu ñu ñëwee stade Léopold Sédar Senghor football si bu ñu ñëwee xam nga heure bi julli bi day fekk ñuy dugg si stade mm-hmm. bu ñu dugg see ba teg saa li ñu njëkk def mooy dañuy baal seen basang ñëw ñëw julli donc vraiment c'est des garçons. ça t'a impressionné ça. ah c'est des garçons pieux. et discipliné et qui xam ni gëm seen réew bugg seen réew donc léegi beneen type de yenn façon jour dañu am. donc xam nga génération bu nekk ak li muy àndal. li muy àndal mais boo gisee loolu aussi li ko andi mooy dañu tirer dañu tirer expérience yi maanaam. ci euh, passé bi. te et ils ont faim ils ont envie ah, <laughs> ndar laa jógee tey ci suba. waaw dem stade Léopold Senghor ci hmm. perspective CAN boo xam ne ANPS ñoo ko organisé. Hmm. fa laa jógee moo tax sama xaw tardé. pour pour ñëw fii. Hmm. donc si loolu la ñuy wax pour euh, évaluer CAN yi am CAN yi am yëpp. dañuy évaluer. xool li tax daaw ñu gagné et de suite ak dañ ko mën a contribuer si donc pour kaan bi ñu jëm donc je pense que nit ñi jël ñu vraiment il est temps que le Sénégal gagne quelque parce que moi quand je pense su may tukki wala dem Ndar wala nekk Dakar wala dem Thiès wala jaar ci yenn région yi wala dugg ci dugg avion yi dem. Ah. mais euh, benn dafa am benn benn benn affront bu fi nekk quoi. Ah. et que moi c'est en le Sénégal euh, en dehors de l'entraîneur bi nga xam ne moom bi tout court affront boobu dafa mu dañ fi. waaw ah, foog mu dañ fii parce que aujourd'hui dañ ko soxla quoi. est-ce que yaakaar nga ne gagné coupe ko gagné. ci tànn bi mais dañ dal. ànd ak tey et comme ni wax. ku nekk def sa rôle ni mu waree def sa rôle et puis bañ a gaawantu équipe bi parce que qualifié wu ñu woon 2012. 2010 ah. qualifié wu ñu 2008 premier tour lañ génnee 2012 10 wu ñu boo xoolee équipe bi huit jours rek ci def coupe d'Afrique donc am na si maanaam euh, euh, quinze seize à ah, dix sept yoo xam ne ñoom. bi ma dem seen premier bi mooy seen premier d'Afrique. donc ni looy def loolu danga nga koy jàngi mais suñu stratégie am na lu ñu daw loo xam ni bu ñu ko mënee gàttal lañu koy gàttal ah. <laughs> donc euh, maintenant euh, que bu ñu gaawantu tasaare. bu ñu ko mënee gàttal mooy bu ñu ko mënee am fii rek. mais bien sûr. nan ngay tontu ñoo xam ne kan bi daf dafa dévaluer ah non non non. mais am na ñu koy wax dama lay. bon euh, xam ñu koy wax mooy banaam moom ñi xam ne dañuy faral di di di di di dégg turu équipe yu mag ay ñoom ay Cameroun ay. tur la ñuy Égypte tur la ñuy dañuy demee te football. football du tur muy muy tour équipe bi muy turu joueur bi du tur. Uh-huh. parce que gis nga souvent booy ñun Sénégal dañu xaw nostalgique toujours loolu moo ñu gaañ. Uh-huh. dañuy nekk naan waaye diw grand joueur la grand joueur la grand joueur la ba xam ni. te euh, maanaam la ma doon joxe ci terrain bi joxatu ko parce que gis nga am na équipe équipe de football boo xam ne am na am na moyen am vingt neuf ans la. Mhm. équipe boobu du sori. bu am équipe la bu am vingt neuf ans. moyen d'âge bi lan la. vingt moyen d'âge vingt cinq ans. bi Sénégal vingt cinq ans et que lu sax ma loolu. Euh, vingt cinq ans boobu donc fii ba am nañu chance 2013 ba 2014 bu ñu àgg si 2014 2015 mooy daal 27 28 ans donc c'est mooy mooy fi ñuy jëlee. fi ñuy ñoree xom fi ñuy ñoree xom xom donc moo tax ma ne bu ñu teelee équipe bi gunge ko jël programme bi nga xam ni moom la fédération def parce que fédération tey lu tax ñu suñu doon 33 ans wane nañu que ni ñii dafa am ci fu ñu jëm mais foofu ñu jëm nag nànk nànk lañ koy defee te gis nga àdduna il faut ñu respecter maanaam processus ak protocole yi. am jikko jikko maanaam jikko saw saw mooy juddu léegi <laughs> eh, màgg léegi dee léegi waaw ah, ñu baal ma ci waxin bi quoi donc nañu nañu nañu nañu nañu gunge équipe bi encadré ko defar ko ndànk-ndànk incha allah ma eh, ci at dañ ci am li ñu bëgg léegi kon euh, fi nekk nii lundi ngeen di dem regroupement n'est-ce pas euh, dimanche dimanche dimanche à midi dimanche dimanche midi euh, lions yi commencé nañu ñëw waaw am na ñu fi nekk ci réew mi. Mhm. donc mais demee ñun demee midi à partir midi la ñuy xaar hôtel. amul kenn koo xam ne club am am na problème yu mu posé wu. ah oui kooku démb par que barki asan barki démb euh, asa a ah, waaw barki démb. 4 mhm. heures du la ma 4 heures du matin la la la ma Mamadou Niang woo Uh-huh. parce que euh, xam nga club bi rek day ñëwaat xam nga ak déclaration horaire. donc dafa dem bay jël avion. Ah. mënul ñëw parce que euh, ay raison yu tax. Uh-huh. donc pour vous dire que bon entraîneur yu bari ñu may woo président yu may woo pour ñu bàyyi leen. ñii ba la onze ñii ba quinze gis ngeen ko ci problème garañ yi am nañ ko. waar yi am nañ ko mais ñun say ñett yooyu yëpp huit la huit la ñuy xaar parce que règlement moo ñu ko may. et donc même bu club yi buggee andi jafe-jafe tey aujourd'hui euh, euh, Sénégal ñun règlement yi ñun la jox. yéen a jox yéen loolu gis nañ ko ci olympique yi. duñ la bàyyi duñ la bugguma mu demee noonu parce que xam nga ay nit bu ngeen amee relation. Euh, di soxlante di mhm. soxlante da ngay xool. ku nekk di bàyyi ku nekk di bàyyi di jàpp fi am di am nu mu bàyyi daal. Mhm. Euh, euh, programme bi laal la programme Lions yi. programme bi donc le 14 non dimanche dañuy regrouper. Mhm. la ñuy la ñuy le 10 le 9. bu ñu xëyee suba sa dem sali bu ñu dem Saly dañuy jaar benn pour jël suñu costume donc yu ñu habillé. bu ñu jógee foofu def ba le 11. ñu ñibbi si waat euh, euh, Dakar pour entraîner fi à Dakar. Mhm. jouer le 12. le 13 aussi. bu euh, contre ban équipe. le 12 le 12 contre Soudan. Soudan le 13 ñu entraîner le 14 ñu jouer contre comment ça s'appelle le Kenya. Mhm. après dem soirée sargal pro mhm. ci ngoon après ñëw euh, le dimanche ñu may xale yi ñu noppalu. dem mhm. tàggatoo seen kër yeeg yooyu. parce que dem jël tamit bagage parce que loolu. <laughs> ah, ah awara ci la bokk wala. xam nga xam nga bagage yi moom. man am naa benn benn marabu bu ne ma euh, moom Barcelone moo ko yor te te. te di mën na la assuré dix match après dinañ ci waxtaan. <laughs> moom oh, dix non oh. di match yi la lay assuré nee na bu bul ko jox dërëm <laughs> na ngeen jël engagement rek. Eh. signé ko après euh, di match yi mu assuré la mu assuré. waaw léegi man naa la boole ñi nga xam ne fédération ñi nga xam ñoo. ñoo yor <laughs> waaw léegi ma jox ko ko ma jox ma jox leen ko direct ñu ah. géré wu nee na laaj laajuloo dërëm. xam nga la la force de l' équipe la cette équipe mooy xam nga lan. Uh-huh. aujourd'hui dans fédération. Uh-huh. aujourd'hui Euh, ñiy diriger dañuy diriger ñi entraîné dañuy entraîné ñi supporté dañuy supporté joueurs yi nga xam ne football ñu football boo gisee bi ñu yoree équipe la gisoo benn joueur bu génn wax ci yenn yi parce que du seen rôle. Uh-huh. seen rôle mooy fu ñu football football football léegi man mi nga xam ne entraîné bi sama rôle mooy ñu soit bien bu ñu bien moo wax ko bu ñu bien wala moo moo wax ko moo tax soo ñaan amara nii wala naa uh-huh. parce que man maay premier man maay seen responsable bi njëkk boo xam ne man maa war a instaurer bi bu ñu bu ñu bu ñu bien wala bu ñu bien aussi man sama kaw lay dal. Uh-huh. donc moo tax souvent euh, may damay sama may may dem ci fédération di wax ñoom. waaye des fois ministère bu bu wax ak ñoom et bu bu bu bu bu tàggee yenn saa yi nag moom foog ma. Ah. léegi derrière vous. non vraiment. tous les euh, ba fi may waxee nii amul benn problème donc ñu ngi xaar jour yi donc ministère bi mi ngi ci ministère mi ngi ci dans dans dans. dans de bonne disposition la fédération est dans de très bonne disposition. chaque fois il m'appelle est-ce que ça va tout est bien tout est réglé je pense que aujourd'hui daal. Euh, xaar jour yu moo ci des li ngeen duggoon ñu jox leen ko. après ñu jublu si suñu. seen seen seen seen seen scan seen scan mais am na benn joueur boo na kundal dafa am problème ndax ñëw li muy ñëw équipe nationale. waa xam nga ko mooy pression yi ñu leen teg souvent rek. Euh, booy ñëw équipe nationale donc. Euh, am na des fois gisoo dañ koy gis souvent ñu ne duñ jël africain parce que day dem CAN. et donc boo waxee loolu mën ngeen doo jël sud américain. parce que day day day day dañuy dem COPA te fi a bon. Uh-huh. donc c'est des pressions yi dañuy jël gis nañ joueurs yu bari yoo xam ni euh, des fois am na am na benn joueur bu signé temps yi fan yii. Uh-huh. entraîneur bi ma wooyee eh, dañ ko dañ ko buggoon jël. Uh-huh. après eh, nii nii duñ ko jël parce que day dem kaan ma leen non foog mu dem kaan parce que kooku mënuñu ko bàyyi mais finalement jël nañ ko après boo wax ak moom dalal ko ni ko vraiment mu jël ko donc pour dire que. Uh-huh. Euh, souvent euh, te kaan bi bon des fois boo dem ba final 45 jours la et xam nga jour entraîneur européen ñoom muy muy muy entraîneur muy ñun. Euh, te 4 matchs au maximum ah. de 6 matchs donc jour bu boo amee boo am nga en train de fuir ci jour daal. et souvent donc pression yi métti la ñu moo tax il faut ñu il faut ñu comprendre jour yi effort yi ñuy def ak sacrifice yi ñuy def pour ñëw. pour défendre le maillot national pour ñëw football si. Uh-huh. donc aujourd'hui euh, équipe am amul lu mu dul lu muy def ak lu mu dul def actuellement nii pour mu bañ a. pour mu bañ dem CAN c'est comme aujourd'hui am na jour yoo xam ne en pleine saison. dañ leen di dik dañ leen dikk comment ça s'appelle dañ leen bu ngeen demul kaan ah, da ngay signé boo demul kaan ma ma ma signé donc am na jour yoo xam ne noonu la ñuy raté parce que nanguwuñu loolu donc pour pour pour pour vous dire. <laughs> alors euh, système Amara. gars yi dañuy wax ne yow vous avez été très clair nga ne amul système c'est par rapport à l'équipe mm-hmm. en face ngay teg ce système. xam nga ñu bëri dégg bon gars yi wax mi ngi gagné mais xamuñu alors expliquer ñu. xam nga ban sa ban man sa sa sama système sa quel système c'est le système qui xam nga football bu match jeexee xamul lu ñuy wax. Hmm. ku gagné <laughs> de waaw xam nga xam nga xam nga des fois Sénégal dañuy def lu xaw a xaw dangereux hmm. parce que des fois moo tax même des fois euh, balaa ñu ngi gagné ñu naan bon way ñu ngi mais je préfère gagner mais que de pas gagner de ba benn xam nga dama wax ki aspect mental xam nga loolu day jouer suñu mental suñu mental joueur yi parce que souvent dañaa woy ñu ngi gagné mais léegi boo loolu xale yi jéem a def ba beneen football pour jéem a rafetal ko rafet te duñ gagné te te même bu ñu koy jéem a rafet sax duuf rafet parce que quand même ñëpp ñu ngi ci réew mi lañ dëkk uh-huh. gis nañ fii euh, man depuis 86 maa ngi équipe nationale uh-huh. mais la question bu ñu war posé ñun lan lañ bëgg ci football ak nuñ ciy demee. c'est-à-dire que ban type de football lañu bëgg si on veut gagner voilà la question qu'il faut se poser parce que ba léegi wax ñu lu ji réellement lañu bëgg si loolu la ñun DTN ji ji ki nga xam ne Amsa Fall moo ko jiite il a deux ans. taxaw ñi maintenant dañu buggu identité football Sénégal Sénégal maintenant identité boo bëggee da nga koy lancer maintenant di ko liggéey ci suuf. Uh-huh. léegi bu am na xam ne bu foo demee nañ ko toll évaluer ko. xool ndax baax na wala ah, baaxul bu baaxee ñu nag waaye li mooy identité bi ñu jaar si ah, ah. xam nga am lu fi amoon am na actuellement lu ñuy def maintenant l'avenir nous dira est-ce que lii baax wala baaxul absolument day wax nag xam nga xam nga nit xam nga booba léegi gañaguñu dara nañ ñu bàyyi rek ñu essayer tuuti xool gañe xool ndax lii dana gañe ou du gañe xam nga euh, booy def dara te gañe woo si mais da ngay jéem a leneen da ngay jéem a essayer leneen actuellement ñu ngi essayer benn genre benn identité boo xam ni peut-être que li mu waneegum daal xel mën na dal parce que boo xoolee kade euh, yi dem nañ kaam ah. junior yi benn match moo leen te ñu dem ñu dem ñu dem phase uh-huh. olympique bi mi ngi ci yoonu qualifié uh-huh. équipe A bi qualifié na donc euh, équipe bu locale bi gis nañ dem na CHAN gañ na IMOA uh-huh. donc je pense que Euh, nañu garder ñu identité de jeu bi nga xamoon moom la Sénégal mës a am. ñu xool ñu ci am ñu ci roof. pour gagner ñu ñu ci roof parce que moom solo. waaw loolu la ñuy ah. parce que xam nga. ah sax ba ñuy seen football boobu ñu doon dem ñu jékki ba si yàgg dañoo mujj. appliqué yu ëpp mais soppi mais nag xam nga dëkk bi dafa am culture. suñu culture dafa xam nga dë da ngay sa culture mais nañ ci roof ay mbir daal jéem ko xool dañu ko soppee ensemble nag. waxuma man maa am raison waxuma gars yi ñoo am raison léegi c' est le résultat. sur le terrain xam nga kañ nga am moom yaay am raison. waaw c' est c' bi. <laughs> Uh-huh. moo tax ñu ñu xam ne moo baax parce que football nag aussi. gagné baax na si mais esthétique aussi euh, sopp nañ ko ci. waaw mais esthétique boo dul gagné nag amul sens. <laughs> voilà euh, esthétique d'accord naa nga mel ni Barcelone. esthétique di gagné. waaw mais même Barcelone sax gars yi dañuy def erreur. Mhm. parce que Barcelone xam nga gars yi Barcelone quinze bi ñu de quinze ans ils sont ensemble. ci 103. waaw 15 depuis l'âge de quinze ans ñu ngi ensemble léegi nag yow nga ñëw nii bon Amara équipe boo xam équipe boo ne joueurs yi euh, bu dul bu match amicaux. Mhm. ñetti fan laa leen di am. bu dee match officiel euh, cinq jours laa leen am. Hmm. léegi yow nga ni kooku na nañu jouer comme Barcelone. c'est pas possible c'est pas c'est pas c'est pas il faut être réaliste. c'est c'est c'est objectif bi mooy da nga ne dégg naa nga ne kan bi dañuy jël match par match. Hmm. <laughs> xam nga objectif kan bi mooy d'abord génn premier tour. bon bu ñu génnee premier tour ba pare. notre poule est jouable ah. waaw sunu poule bi mais mais attention gis nga gis xam nga souvent gars yi dañu dem kan. mu ngi demee CAN. waaw daanaka nga gagné match yi avant ñuy dem avant avant joué gagné match yi avant ñu dal na fi France en en quatre euh, en deux mille deux. Uh-huh. en deux mille deux. bi ñuy téye poule bi ñu oh le Sénégal c'est facile donc. te mujjul génn non <laughs> dañu joué match yi ba pare xool ndax ñooy yelpe ou pas. léegi suñu premier match contre Zambie la ñoo koy préparé bu baax moo tax ñu andi fi Kenya xam nga ñoo xaw. nuroo ñoo xaw nuru donc Soudan comme Libye. naar hmm. ñoo xaw nuru donc on se prépare bien pour jéem génn ci poule boobu. et te li ñu gën a mooy génn fa jël premier place bi pour des bata parce que mu ñu jëlee premier place bi dañuy mais condition yëpp réunir ngeen ko foofu Ferdinand dem na xool lépp Ferdinand dem na moo professeur Fallou dem nañu xayma nañu mais la fa am daal jël jël nañ ko maintenant dëkk boo demee dëkk boo fa demee lii nga fa am mënoo inventé lu fa amul donc bu ñu demee dañuy adapté lu fa am euh, comme suñu morom ya fa nekk yëpp donc def liñ fi yëpp te tey jii ci kan bi yéen équipe nga gën a ragal par exemple. suñu bopp. ah bon ah oui suñu de supériorité suñu bopp. Ah aujourd'hui xam nga souvent damay y a y a un an j'ai dit que Sénégal Sénégal la sa départ su ay moyens de travail yi muy am. Uh-huh. ak nekk ni muy nekkee. Uh-huh. suñu bopp si le plan mental suñu bopp aujourd'hui euh, amoo crainte parce que joueurs yi comme miinuñu Coupe d'Afrique xam nga bokkul parce que mais gis naa quand ñu def benn match euh, contre Cameroun boo xam ne à l'extérieur Euh, boobu boobu boobu équivalence coupe d' la. voilà boobu waaw boobu équivalence coupe d' afrique la. match de référence la tey aussi am na ñu leen wër ñu leen ngànk tey ñu mel ni tey ku mel ne Ferdinand Coly Abdoulaye Sarr Mahassine. et Daaf Daaf qui a l' donc. Euh, sélection Daaf posé na problème ñu bëri <laughs> lu tax. waaw mais mais ma c' est moi qui question parce que xam nga tax. Hmm. mais Daaf trois premiers matchs Daaf moo ko joué. contre RDC Daaf hmm. hmm. moo joué. contre Île Maurice Daaf moo fii. ndaaf moo joué si la gaa si la am blessure moom moo tax ñëwul donc bu reprendre aatee ñëw wér bokk na donc day day day day day day sélectionnable donc jour boo xam ni bi ma commencé gis naa li mu li muy def ci terrain bi. ak gis naa li muy def ci hors de donc c' est un joueur qui est surtout que surtout que wax naa ni que man je ne fais defuma discrimination sur l' âge. xam nga tey sama rêve mooy lan. honnêtement pour vous dire c' est pour jox Henri Camara centième sélection parce que c' est parce que euh, il a 98 sélections. 98. 98 il manque deux pour mu am centième sélection Aliou Camara et xam nga loolu mu baax ci ci ci ci réew. parce que c'est ça le premier jour bi nga xam ni. Mm-hmm. am na 100 sélections et c'est symbolique. dana tax jour yi nga xam ni yi yi ñëw. yi mm-hmm. ñëw mm-hmm. wala yi bëgg dañuy jéem a ñafe pour am puis de pour battre record en yi am na yoo xam dafa symbolique donc surtout que wax naa ni man defuma discrimination sur l'âge parce que boo ñëwee sama premier sama déclaration générale loolu laa wax dama nii man li li euh, xooluma âge. li ah. ma mooy technique talent ak le physique parce que dama gëm ni jour buy nekk en Europe di football quatre-vingt-dix mille tous les dimanches. Ah. wala tous les samedis ah. am 50 ans cest à que tubaab bi du ñu fay seen xaalis koo xam ne amul la njëriñ gis nañ ko ci jig hmm. mais comme dañuy reconstruire aussi donc booy def loolu da nga jël ñi nga xam ni am nañu sage nañu hmm. ak mais doole équipe bi aussi ay xale la ñu parce que hmm. booy booy reconstruire aussi da nga jël ay xale yu bari roof leen ay quelques mag yoo xam ni mën nañ mën nañ leen xelal mën nañ leen mën nañ roy ci ñoom après ñu ñu ñu ko ne voilà Amara maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax si ñëw bi nga ñëwoon fii c'était pas évident parce que jógee Saint-Louis ak <laughs> euh, bëri nga tamit li nga xam ne moom moo nekk ay engagement mais tu as tenu à être là pour partager notre plateau kon dañ lay gërëm bu baax a baax dina ñaanal bonne chance après bu ñu génnee ma jox la gars yi turu sëriñ bi nga xam ne daf <laughs> ñuy assuré su lu man wax nañ ma ko non wax na ma nee ma nee na ma bu duñ ko fay gum dara mais day assuré match yëpp parce que gars yi bëgg nañ coupe d'Afrique boo xam bu ñu génnee ma jox leen incha allah am pot bi incha euh, di sant di gërëm tamit euh, téléspectateurs yi leen dig daje euh, ci euh, beneen samedi mag euh, boo xam ne samedi prochain comme d'habitude à partir de 11h allez au asalaamaaleykum bokki Sénégal tey nag ñuy waxtaanee constitution. fii nag ci Kajoor euh, ci cosaan jàmbur yi ki nekkoon ca bopp ba moo doon Laman Jamatil.